asalaamaaleykum mbokku téléspectateur u télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq waaye di leen baal àq di leen dalal jàmm nag ci seen émission bi di wareef ñuy ànd ak altine talaata àllarba ba alxames ci kàttanu suñu borom bi may am mbégte nag di feggoo ak sama doom sama xarit Fatabaakalla macha allah sama inspecteur. ndoy baan nuyu naa la ziyaar naa la fa tabarakallah masha allah mhm. di la ñaanal jàmm di ziyaar Marie moom nga xamante ne Marie zéro faute laa ko tuddee masha allah waaw ak suñu wéyjur euh, sëriñ Ibrahima Baan ma nekk ca Pire macha allah macha allah bisimilah. jërëjëf merci beaucoup Tade yéen ñu ngi lay ziar. di la bu baax di nuyu sunu. père Babou ak euh, njaboot gaak ñëpp. Euh, ma kii mami ak maamam sama xarit bu ñaawul boobule. maa ngi koy ziar sama waay la nag. Ah, di ziar ñëpp ñi nga xam ñi ngi ñuy seetaan ñi ne ci réew mi ñeneen bitim réew. ak ñi nga xam ni ñooy takk der yi. kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi. ak ñi nekk ci dëgg dëgg këru diine yi ci Sénégal gépp. ñu ñaan rek yàlla na yàlla def nawetu jàmm. bu bari daal ay meññeef ci réew mi. ndaxte heure bi daal na fekk ñu daan mbool. Mhm. xam ndax xam mboolam déet teg. Mm. ñu luy mbool. mbool mm. gis nga tiiju dugub bi ni mu def ni mu mel noonu. waaw gudd noonu gudd noonu. suñ mm. demee ba mu ba mu ba mu fucc ba am ay commencé am ay ay ay pepp ay ki dugub. pepp mm-hmm. dugub. Mm-hmm. soo ko jëlee benn soo ko soo ko ñamee day saf suukar. loolu noonu la ñuy jël tiij bi lañuy ñëw dagg. Mm-hmm. teg ko ci benn taal tàngal ko. suñ ko tàngalee ba mu xaw a mel ni lu kuy lakk mboq noonu. am na lu ñu naan lu ñuy wax mboolaan. benn affaire boo xam dañ koy raab ba dañ koy wax mboolaan da ngay mm-hmm. teg plate rek def nii rek mu rocceeku dugub bi wàcc mm-hmm. day rocceeku mm-hmm. su nga loolu noonu moom la mbër yi dëgg daan lekk mbër bu la ko ci dàq dàq lekk moo la da moo la ëppoon doole loolu lañ naan mboolaan loolu la ñu naan euh, mbool si jamono yii nii nii. am daan na fekk ñu koy kii am daan na fekk nu jeunes yi ñëpp. soo doxee ba guddi. ngeen dem ci àll bi dagg mbool defar lekk. loolu day tax nga daan nga am doole mm-hmm. Mm-hmm. mais booy yi soo leen gisee yambar gi bari maa ngi a xam kay foo jëlee macha allah sa doole bi voilà soo gisee booy <laughs> yambar yi bari daaw mais du ñu lekk mbool mm-hmm. mbool soo ko dee lekk da ngay am doole mën nga ndaw ni waaye ko door mu xam ne dóor da ngay sec comme genre am te doole neen nga am lekkul mbool allah axan ah, kay lekk na mbool am ay kii lay lekk xam naa ne ay merguez ak yooyu. <laughs> jërëjëf Ndoye Bane. mbégte gu rëy di nuyu waa Pire Saniokhor yëpp macha allah mbégte gu rëy la ñuy am tamit xam nga ko toog ak sama jarbaat mhm. Fatou Bakkala macha allah. Mhm. ah mami maa ngi lay nuyu. ah sama xarit maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu képp koo xamante ne rek mu ngi taq ci yow. waaw macha allah bisimilah <laughs> waaye abi maa ngi lay di dellu di wax jërëjëf Cheikhul Khadim sama yaakaari tey na mag neen son Mandela tëpp koy jaloore di ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi di ñaan yàlla na yàlla wéral seen i cër te guddal seen fan di ñaan yàlla nag mu musal ñu tam musal ñu di wax ne Sénégal daal jàmmay sunu mbokk kon yàlla na fi yàgg te law fi amiin yaay di gën di la ziyaar bu baax a baax di ziyaar sama maam Camara Jibi Anta Boy <laughs> ak sama yaay Nafi sama xarit boobu nga xamante ne ah. sama digganteeg moom jéem nga ci lu ne wala jéem naa ci waaye doo ci mën dara tax jéem naa ci <laughs> naa ci man xam naa ne yaa nga ca waaye dama jéem jéem mu tënk déedéet bàyyil noonu rek bàyyil <laughs> noonu ndax xam moom maag moom ay kii lañ ndoy di nuyu sa yaay di nuyu sa papa di ko wax ne moom gañ sëri moom na ko fi bàyyi <laughs> gañ moom du gañ moom gañ moom siiwal nga <laughs> woon siiw non paa bi dama ko bëgg ma dama may may koo xam ne moom la paa la bëggoon dox ah. waaye siiwal ngeen déedéet man maay lijjanti loolu ndaw si ndaw si moo ma kiiwul man man maa bëgg a sama sama sama papa kii rek ndeysaan mu kii rek waaye buñ ko def takku suuf de boobu laay bañ waaw damay mais nag gañ gañ daa teg bëtam ci suñu kër gi. <laughs> xaatim kayitu kër gi xaatim xaatim <laughs> macha allah macha allah. <laughs> mbégte gu la ñuy am ma mi xam toog ak yow diggante démb ak tey ndoy baan dama ko ciy namm bu baax a baax uh-huh. waaye balaa ñuy dem fenn dañuy àndaat rek euh, ziarat kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi uh-huh. sukk ci suuf nag di sàkku ci ñoom ñaan waaye delluwaat di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne uh-huh. yal na yàlla ñoo di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakalla macha allah ñuy ànd ak yéen ba tey ci seen émission bi di wareef ci télévision Futur Média seetu askan wi ziar kilifa aada yi. Mhm. ñaan buur bi nga xam ne lu fi sotti rek ci coobareem la moom yaa rabbi yal ñu mottali lépp ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te lépp lu mu ñu ci defal rek yal nañu ko muurloo ci barke alquran al karim ñuy àndaat ak yéen ba tey nag ne meeku malaati dooy baan. Mm. nañ dugg ci hôpitaux yi. Mhm. dugg ci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 fa tabakalla macha allah ah, di ñaan suñu borom bi yéegee ah, soxna Souadou Guèye boobu ci àddina ñu gën a kawe ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam te di ñaanal Adja Yacine Lo moom tamit mu yàgg fi lool lool lool lool te wér ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni nag ne seen émission bi di wareef ay thème la fa la macha allah lundi ba léegi nag ñu jël thème boo xamante ne dañu dugg ci relation professeur ak élève mhm. relation professeur ak suñ ko waxee lu yaatu yaatu yaatu la soo daan tudd jàngalekat rek ku ci nekk day tiit ndax jàngalekat synonyme de respect la woon jàngalekat si synonyme de maandute demoon nañu ba nga xam ne jàngalekat sax ala euh, suñ la waxee naa la booleek sa monsieur. Mhm. wala naa la booleeg sa professeur sa da ngay tiit. Mhm. ndax wor bi nga xamante ne joxoon nañ ko ko ndax jikkoom jikko ci jikko. bu ñu fàtte ne ci jikko la ñu taggee woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tax jikko lépp dafay indiwaat ci jikko. Mhm. ñu dem nag ba crise des valeurs fi nag am nag. ñu koy jooytu di ko jooytu ñu dem ba nga xam ne suñu doom yi ci béréb yooyu ñuy jàngalee daanaka dañ ma dégloo xel de. Mhm. jéggal ma bu baax a baax de waaye ci bërëb yooyu ñuy jàngee daanaka ci la ñu yàqoo béréb yooyu ci la xale yi di jànge tux. Mhm. cigarette bi jàngee tux yàmbaa bi. Mhm. ñu dem ba nga xam ne xale yi foofu lañuy ñuy jàngee yenn xeetu relation relation relation ñoom ci seen bopp waaye tamit ñoom ak seeni professeur seeni jàngalekat. ñu dem ba nga xam ne jàngalekat yi di xemmem xale yi jàngalekat yi di laafu ganaar suñuy doom mm-hmm. junj doy na borom xel ñu dem ba nga xam ne ñun ñuy wéy jur yi suñu yaakaar kat tas na te amul kenn ku ko tas ci ñi nga xam ne ñoon la ñuy yaakaar jàpp ne ay éducateur lañu nekk ci école ba ba yàq suñuy doom dañu ne suñu yëkkatee tam bi nag nañu dégloo xel éducateur ya nga xam ne xam nañu valeur éducation nañ ma jéggal xam nañu valeur li ñu ngay def xam nañu ne ne ñoom ci jëm boppam ay tànneef la ñooñ taxuñu ñoo wax déedéet ña baax a ngay baax ba léegi waaye nag dañu ne benn pombiteer dina yàq saako rawatina nag saako baa ngay waaj a nëb xanaa la ci nëbbagul bëreegul loolu moo tax ñu toog di waxtaan yuuxu yuuxu ñu ñii parents yi ndax am nañ ci responsabilité bu rëy rëy rëy ndax dem nañu ba nga xam ne dañoo démissionné parents yi euh, ñu ci bëri bëri bëri démissionné am na ñenn ñoo xam ne xamuñu sax seen doom ban école la ne ba di xam ban classe la ñu ne ba di xam ban professeur la ñuy làngal ba wala nag devoir ya nga xam ne moom la ñuy rendre ca ca ca appartement meublé. Mhm. ak nat yi nga xam ne moom la ñuy wax note sexuellement transmissible nda rokki ma rokkaa la waaw su ma rokkee fii ma rokki la ca nat yu baax ya mhm. loo xamante ne sa jàng mayu la ko dafa mel ni daal enquêteur Ndoye Bane mm-hmm. fii lañ toll mm-hmm. yaa ngi dégg gis naa la sa dara neexu ba waaye dafa teel <laughs> ah fatabaakàlla <laughs> dañ fay waxoon xuuxal jeeg ah. nga laaj ñu luy xuuxal jeeg uh-huh. diñu duur ay question ci xuuxal jeeg léegi laafu ginaar la waa dëkk bi bëgg a xam waaw laafu ginaar gi ngay wax temps yi yëpp laafu ginaar mooy lan waaw laafu ginaar rek mooy xale yi ñuy def naka sudul noonu rek xam nga fu mu ne nii Adja Awa Diop kaste <laughs> à l'Assemblée nationale mi ngi leen di nuyu bu baax mm-hmm. ñu ngi koy fay lu bari fan su bu rëy la koy fay dégg daf ñuy déglu bu baax li ma gën a neex xale mhm. yi eh, eh, yéga di ko yi nga àndal yow yaa ngi muur wax kon laafu ganaar daal mooy tas yaakaaru yaay yi waaw waaw waaw laafu ganaar non mais ndooy daf ko def mooy loolu waroon na gën a leer waaw ah laafu ganaar daa war a leer moom laafu ganaar rek laafu laafu ganaar laafu ganaar suñu doom yi rek di laafu ganaar xale yi waaw waaw xam naa ni tey su ko demee Mia dinañu teel a tegal aussi ay élément waaw waaye balaa ñuy sori mhm. maa ngi toog ak inspecteur bu mag a mag waaw waaw bu ma sa enquête jàpp <laughs> bismillah taa taa ngeen wax nga lu am solo fan yi yëpp ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ci di wax te mhm. duñu duñu tay di wax te élèves rek lañ dégg ñu ñu ci reportage bi bëgg nañ semaine bii di ñëw ñu jéem a am maximum de professeurs mm-hmm. ak euh, ñi nga xam ne mën suñu mënee am waa ministère bi censeur parce que manque yi dox parce que mm-hmm. manque yi dox ak waa ministère bi pour que rek ñu ñëw àddu jëmale bi sax war na yi xam nga da ngay dégg ci télé bi ñu naan valeurs yi valeurs yi dañoo valeurs yi ñoo manqué valeur dañoo raté suñuy xaw ma ak lan nañ koy waxee crise des valeurs dañuy wax dañuy jikko yi dafa soppeeku mm, mm-hmm. te jikko yi dafa soppeeku te xam nañ naka la ñuy def pour que jikko yi mën a euh, ñu ñu ñu dabuwaat ko mm-hmm. soo xalee xool mën ko dabu waaw mën nañ ko dabu mm-hmm. oh, cest à man ci sama xam-xam bu gàtt bi ma toogee xalaat yi soo gisee soo kër goo dugg gis fa gis fa sunu sunu sëriñ su baax si kër goo dugg gis fa koo xam ni euh, ñii ay taalibee sëriñ Tuubaa lañ nii ay taalibee maam Alaaji Maalik lañu ñii ñesee nag ñooñu ñooñu ñooñu tey jii ñooñu ñu baax ñooñu. li ñu bind. soo demee ifan gii. lañ fa lañ fa bind. mu ëpp fuuf li intellectuel yi di jàng nii. Euh, moo fa ko ëpp fuuf lañ fa def ay ñoom xaale Amar Fall. ñun ñëpp lañ fa def mag nga ifan soo fa demee. mais loolu noonu ma nga ifan di nelaw mais kenn du ko jàngal suñu xale yi. dañuy jël xam-xamu tubaab bi la ñuy jël di ko def ci suñu xale yi di ko def ci suñu doom yi ñooñu ñooy màgg doon ay professeur amuñu be amuñu lenn loo xam ni mën nañ koo jàng ci lu ñu nag ñooñu mm-hmm. ñi nga xam ne ci ñoon seeni livre la ñuy lire mm-hmm. di ko jàng ñu nag ñoom bokkuñu ay jikko mm-hmm. bokkuñu diine bokkuñu dara dum néewuma buñ leen jàngal loolu waaye tamit nañ ci yokk sunu sunu sëriñ su baax si li ñu bind bafi ñu dem xool nuñ koy traduire dugal ko ci njàngale mi élève bu dugg ci biir classe wala professeur bu dugg ci biir classe soo ubbee classe bi rek yem ci sëriñ Tuubaa photo soo geesoo gis maam alaaji Malick mhm. gees fee gis maam maam Baye Niass mhm. dina am lu muy def ci élèves yi mhm. dina am lu muy def ci professeur bi sama benn xarit dañoo bi nekkee xale doon doon baal bi ñuy baal waali waali waali Njaay la tudd ma nga ma nga Italie fi mu nii mi baal mi muy xëcc gel bi di fecc baraag rek yem ci photo sëñ Babacar ci miir saal bi ñu doon baale mu jékki-jékki di jooy wow man ko looy jooy mu daan ni ma nii Mm-hmm. lan lan mu ma xool photo man ko lan mun ma sëñ Babacar mm-hmm. la génnee sa ca soirée ba mm-hmm. donc ñun am na lu ñu def ci ñun loo xam ni am na lu ñu am nañ ay nit yoo xam ne ñu nekkatuñ fi waaye ba léegi ñi ngi suñu kanam ñoom lañ leen di rus lool ñoon tey ji suñu fekkee soo béemee ca kër ga bàyyi fa sa photo sañ Babacar nga dugg ca classe ba fekk fa photo sëñ Babacar professeur beeg élèves yi ñun ñoo bokk lu ñu mooñee ay sénégalais lañu dafa am lu ñu gëm ñooñu liñ bind ba fi ñu def ko ci njàngale mi mhm. jikko yi nit ku mhm. baax du mhm. def lii du def lii du def lii du def lii soo amee soxla nii nga la war a jaar soo amee doom nii nga ko war a jaari jikko yooyu ñu def ko ci biir élèves yi yooyu ñu ko def ci ñoom ñooy màggi nekk ay professeur nekk ay gendarme nekk ay médecin kenn ku ci nekk euh, soo soo xalaatee lan la jàngal ci sëñ Babacar ak Serigne Maam Baye di nga jomba def jenn yi te ak jomb-jomb ñu koy def ci biir élèves yi te jomb-jomb suñ ko bëggee def ci biir élèves yi jikko loolu mag ñu baax yi bind ba fi faut ñu dugal ko ci biir école bi mhm. jàngal leen ko mhm. Mhm. donc duñ ko jël yooyu rek teg ko ca pour euh, pour pour nga jàng ko il faut nga bokk ci daayira yi pour nga jàng ko il faut nga dem ca jumaa ja non dañ ko war a def ci biir école yi ni ñuy jàngee ay ay ay ay ay Béhanzin ay xaw ma René ay ay Soundiata ak yooyu ni ñuy jàngee ci ñoom lu <laughs> ñooñu tur yooyu tey ji ñooñu duñ ay sénégalais mhm. te dañuy jël di di di di jàng seen ay ay ay texte mhm. di jàng ay nit yoo xam ne duñ ay doomu réew mi mhm. te ñu am ay nit ñu baax ñu nekk fii maam Abdou Aziz lim fi bind lim fi bind lim fi wax ba fi bind ko fi ba fi bis bu nekk Sénégal ñi ngi dund lu mel noonu daal su ma la déggee ba tey yaa ngi dem ci référence yi voilà ndax nit euh, tamit euh, su ma la déggee ba tey day am référence te tamit référence euh, ñun ñi am nañ chance du Euh, ci lu ci ëpp du lu ñuy jéggaane mhm. loolu lépp tamit lu am solo la loolu lépp dellu si rek ci éducation de base mhm. ndax ki nga xamante ne ne xëy na su gisee jëmm yooyu mu yëngal ko mhm. dafay fekk ca këram ñu jàngal ko jëmm yooyu lan lañu ñu def ci diine fa tabaarakalla macha allah moo tax ma ne la lépp rek su fekkente ne Euh, euh, wax nañ ko ci école yi dañuy dellu siwaat ci kër yi mhm. ndax bu ñu fàtte ne jàngalekat yooyu ci kër la ñu jóge mhm. bu ñu fàtte ne tamit xale yooyu ci kër la ñu jóge mhm. kon mu mel ni kër yooyu suñ leen fa tabaxee jox leen éducation de base jox leen ay références di wax am lenn loo xam ne wéet gore lay doon wéttali ku gore dina tax jàngalekat boobu euh, euh, du bale loo xale ba mm-hmm. ba mu ci xalaat ndax xëy na leneen jëmm lay gis mm-hmm. ak yeneen valeur mm-hmm. dina tax tamit xale boobu du dévergondé boppam ba ne professeur bi foog ma am ko lépp rek day dellu si ci éducation de base soo paree nga jox mami noot gi ñu noot ah. noot gi ñu tubaab gi noot mooy dem bay feeñ suñuy doom da ngay dem ci ay classe fekk fa photo Faidherbe ba mi sonaloon Serigne Touba sonal da ngay gis photo Federer bi ca biir classe ba. Mhm. mais kook xale bi su xëyee chaque jour nga won ko Federer bi di ko jàngal Federer mhm. doo ko jàngal ki Federer bu joteel. Mhm. donc <laughs> problème day daal di am. mami. waaw euh, yaa booy loo nekk tey da waaw yow xam naa ne moom temps yi su ma la moytuwulee euh, di ma fi di di di. <laughs> waaw d'accord mais cassette bi nag laay xaar na gaaw. waaw sañuñu ko rek. sañuñu ko waaw. sañuñoo dóor. dóor. sañuñu ko de. 15 sañuñu ko rek laa la indil ndax damay bañ mu bari ci bopp nit ñi ñoom jàngalekat yi waaw kon jàngalekat après dinaa la indil li tax ñoom sañuñu ko ak liñ ci waroon a sañ tañ xaj leen ko ba tax mënuñu leen a laaj ñu nit yenn résultat yi kon moom lim bi dafay naan sañuñu ko sañuñu ko rek sañuñu ko dóor rimel sañuñu ko xas sañuñu ko yedd sañuñu ko xool sañuñu ko mer sañuñu ko kaf sañuñu ko wéet sañuñu ko seeti sañuñu ko yëddu sañuñu ko bëgg sañuñu ko tere sañuñu ko sàmm sañuñu ko rond sañuñu ko ànd woo ànd woo waaw ànd wala ñu woo ko sañuñu ko waaw mais ci biir loolu noonu sañuñu ko sañuñu ko yooyu yëpp xam nga lu tax ma indil la ko uh-huh. ñoom dañ leen a wan ne ñoom amatuñu benn sañ-sañ ci gone yi itam uh-huh. wan gone yi ne leen ñoom am nañ sañ-sañ ci ñoom uh-huh. ndax buñ leen dóoree won nañ leen fa ñuy jaar xam nga lu ma jublu foofu gis nga doom Sénégal dañu ne dañu bëgg doom mais man ni ñuy bëggee doom léeg-léeg daf may jaaxal mm-hmm. ndax it bëgg sa doom yëkkati ko teg ko ca kaw def ko sa maalik yow mi diini ku jël sa bakkan def ko ilimaan mu julli loola ci jàkka ju neexul mm-hmm. doom da nga koy wan ne ko doom la gis nga doom ji nga bëgg bëgg mu tekki ëllëg mm-hmm. bi muy doon gone da koy wan sax ne ko bëggoo ko ku jur bëgg ndax doom res la ñëpp yërëm seeni doom dagam doomi jàmbur nga yërëm bes maa sa doom ji nga jur mais ci bi muy gone ne ko bëgguma la déedéet mais danga koy limité ci li mu mën a yem mhm. bul yëkkati mukk itam dëgg teg ko ci kaw xale mhm. xale du am dëgg ci kaw yi mag mhm. mën nañ leen di laaj nag mën nañuy wax mais lu sa doom wax nga ne ko yaa am dëgg prof bi bu ne moom tere nga ko lii yëpp ba pare yow di ko rond prof bi di rond parent bi parent bi di rond prof bi kan moo nekk ci diggante bi xale bi xale bi moo ciy gën a fay moo ciy gën a dee parce que moom seen kër joxuñu ko gëdd ba mu fa yayoo mais teg nañ ko ne ko yow yaay lépp école ba dem ne kii tere nañ ko sañ-sañ yi yëpp amatu ko ci xale bi bu njëkk dañ daan dóor mhm. maître bi dal daan dóor mhm. daf ko sañoon mhm. daaw loon am problème ndax danga daan am yaayi biir kër ak yaayi biti boo defee loo war a def taa di ngeen jàppale lijjanti la ba nga ne nooj mu delloo la seen kër bu demee am ca ndam léegi sañoo tere xale boo fi woo ne ko dama lay yedd mun la dama lijjanti ko sa kër dama wax ko ak doom kon nag ñoom it dañuy dem ba dafay am benn kii bu am ci seen diggante te gis nga bu ñu bëggee réew mi dox taa di ñeent yi faw ñu jox leen seen gëdd pour réew mi mën a dox jàngalekat bi bi ngay jur sa doom bopp bi dafa vide amul dara mm-hmm. ki ko jox mu de la ko jàngalal mu yaakaar ci diplôme bu mu la teralee ëllëg yow mi ndeyam mm-hmm. teraangay addunaam yëpp mën naa ne daanaka ci diplôme boobu ngeen koy xaar ci ngeen koy yaakaar mhm. kon kooku mënoo fay mhm. beneen bi ci des mooy tonnikatu mbalit mhm. mënee su koo fay ndax bu fi nekkul réew mi salté te réew nag yii bu ko amul ba amul sécurité amul xam-xam réew ma tilim naa ne dëkk fa dina jafe lool kon yaakaar naa ne kii di eh, médecin wér-gu-yaram day am cet am xam-xam am sécurité am gis nga gardien médecin <coughs> euh, jàngalekat mhm. tonnikatu mbalit mhm. fekk joxuñu leen seen gëdd ci réew mi ak lu nu mën di sonn lu nu mën di wax réew mi ci nii rek lay nekke di ci mhm. dem parce que nag dañoo dem ba ñun itam danoo yanum ndox ba pare di war buntu kër jàmbur yi naan may leen ma ma naan li ma la bëgg a indil foofu mooy gis nga taa dëggeen li xew ci réew mi dafa bari tamit torop torop torop torop ndax gis nga ndooy dafa cof démb école yu mag yooyu nga xamante ne moom la ñuy wax école yu mag yi am na ci ñenn ñoo xamante ne doomi borom barke yi rek ñoo fay jànge mm-hmm. xam nga xale yi fu ñuy defantee mm-hmm. ci seeni daal mm-hmm. dañuy dem ba dañuy xeeb prof bi nga xamante ne ci daal ñetti téeméer yi lay sol ndax seeni daal la ñuy yëkkat di ko teg ci kaw taabal ji nee nañ dañuy bulo soo demee bay jàng nag te yow taabal ji ngay wutee xam-xam respecté woo ko kon yow soo yeboo bàyyi te dem mais beneen bi ma bëgg a def ci bopp xale yi mooy biirub nday ak bàyyi dañ cay dugal lu lew diplôme bi yow ci nga yaakaar ëllëg pour teral ci ndey teral ci baay mhm. ci nga yaakaar pour yóbbu leen ci màkk ci nga yaakaar pour def ci lépp mhm. kon diplôme boobu yow war nga ko sàmm ba su ëllëgee salaire boo ci njëkk am mhm. di ko bàkkoo di dem di ko jox ndey ak baay pour ñu lekk ko nga joxee leen ko ak xel mu dal mooy que diplôme bi defuma ko NST mm. not sexuellement transmissible mm. Mm. parce que am na yenn diplôme yoo xale di am tamit ndax nga toog neuf mois doo jaar école mm-hmm. xëy ñëw indi résultat mm-hmm. bu sa yaay yeewoo laaj la feneen foo ko jëlee mm-hmm. xale yi itam nag taa diggéen li ci bëgg a yóbbante mooy dañoo bëgg a siiw ne weenu jë te ween bu ne fàng ci jë dina siiw am na solo merci beaucoup allo allo bi soxna si ñu ngi lay ziar ça ñu ngi sant bu baax taa diggéen ça va ngi lay sargal ça va mami ça va na def. ça sant bu baax ku baax. kon yokk yokkal baat bi tuuti rek. ah d'accord wax nga <laughs> lay ziar. man la Fatim Keita. soxna Fatim Keita Keita. ça va yaa ngi ñu ngi lay sargal bu baax Keita. alhamdulilah man nag euh, thème bi. Mhm. Euh, lu tax ma bëgg a dugg te parce que mën naa ne man arrivé na ma. Mhm. Euh, parce que am naa jëkkër. Mhm. mais bi may euh, yàgguma am jëkkër bi may def euh, terminal mhm. euh, sama benn ci professeur yi defoon na ma ko. Mm, kenn ci professeur lu mu la def Fatim. waaw sama benn professeur. Mhm. ñu daf ma ne mën naa genre chantage la woon. Mhm. waaw mais par la suite yàlla suturaal na ma. naka la la chantage lu mu la wax. waaw daf ma doon ñu baal ma ci kàddu bi daf ma doon doxaan. waaw bu ma bi ma bañee. Mhm. bu ma ñëwee mu commencé di ma indi problème ci côté notes yi. Mhm. Euh, yàlla mi dara tawul nag comme man du ma am naa fit sax waaye ragaluma noonu. Mhm. ma ma dem ci euh, administration bi boole koog moom. boole ko. boole koog administration bi. après par la suite ñu mujjee koo dàq. mais presque sama jàng yàqu na ci ndax euh, six mois yu njëkk yëpp ay notes yu bon la ma doon may. bu ma waxee mu ne ma moom mooy classe la nekk affaire yooyu daal mm-hmm. li ma li ma fexe ba administration bi yëg ko daal mm-hmm. ci laa amee jàmm kon loolu xale yi nañ ko ci déggee bu baax mm-hmm. dëgg la di dénoncer ah ma ne xale yi nañ ko ci déggee bu baax di boole di dénoncer dañoo war a boole am na yoo xam ne jarul nëbb dëgg la ma fay sama xaalis di jàng ci école nga di ma doxaan di ma may ay notes yu bon ma di la seetaan man la neex dañuy war di boole di dénoncer. Mhm. man de personnellement arrivé na ma waaye bi ma jëlee sama décision ci la loolu gëj. Mhm. wax dëgg fa yàlla. Mhm. kayta kayta kayta kontaan nañ ci témoignage bi. Mm-hmm. ñu ngi leen di béggee bu baax a baax 88 628 22 22 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 04 05 te na ngeen xam ne 88 628 65 65 yooyu yëpp ay numéro yoo xam ne soo ci duggee mm-hmm. mën nga euh, wax ci mm-hmm. fii ci Sénégal waaye tamit dañuy waajal tabaski bi am na chaque jour ay ay pari juróomi junni yu ñuy mayee ah mami day bokk juróomi junni ndooy baan bi bokk mboq juróomi junni mhm. may arbitré di xool ku ma koy jox mhm. <laughs> loolu yëpp euh, ci ay xéwal la waaye soo wootee bitim réew nga def 00 221 33 841 22 99 mami à toi allo allo waa Tata Dégg soxna su baax si na nga def maa fi kookan la mami waaw maa nii maa ngi lay ziar. delloo naa la ziar lu bëree bëri. di ziar inspecteur Ndoye Bane. jaajëf Saalum ñu ngi lay ziar. ziar Tata lay sangal bu baax a baax a baax. waa damaa bëggoon a kii ci émission bi. Mhm. yow rek la ñuy déglu. dafa amoon sama benn doom boo xam ne. Mhm. dafay dama ko dugal école. waaw. seen maître defal leen ay blouse. Mhm. moom nag mu jël blouse bi dem ci tailleur bi. wàññiluwaat ko ba mu dem jël formam heure mhm. su demee jàngi su ñëwee mu ni ma yaay sama bopp bi day metti mhm. ma ni ko metti mu ni ma waa sama bopp bi day metti man daal damaa arrêté ma ni ko loolu pour la mu ni ma man daal damaa arrêté daal sama bopp day metti mu def trois jours mu def noonu ma daal di dem ànd ak moom ci meetar bi bi ma demee ma nuyoo jàmm sant toog maslaa ak moom ma ne ko man de sama doom dafa ñëw trois nee na moom boppam day met mu ni ma boppam metti wut dama leen a jox ay blouse mook ay moroomam moroomam gis nga blouse yi ñu ngi nii toog niñ ko solee moom mu def sol blouse am ba paccal ba def ay weenam mhm. ma ni ko ah mu ni ma wa ma ni ko moom waxuma lool daf ni boppam day metti mhm. te man awma lu dul moom ma ni ko waa baax na mu ni ma bu dul dara di ñi mu bokkal classe te góor ñi góor rek la mën a doon ba fu ne tey bu ko dara wokkoon wala dara xuri ko ni man wala samay élève mhm. ma ne ko ah mu ni ma wa ma ne ko waa baax na ñëwoon ñu dem bi mu wàccee barke Sëriñ Bamba keroog dama koo dóor ba mhm. dama doon fay ci kawam mhm. te bëggaluma ko woon lu dul tey anamu mi ngi nii na. Mhm. am na jëkk am bagam am yëppam. Mhm. te keroog bi ma koy dóor suñu waa koñ dañoo génn daal da cee toll. Mhm. ma ne ko toll. mu ne ma toll ma ne ko man mii ndeyam da ba ma ci tolloo defuma ko. barke sëñ Bamba keroog dama koo dóor bay fay ci kawam. léegi am na jëkkër ba am doom bu seetaane émission ba dina xam li ma wax. dëgg la dëgg la jàmm nga ko bëgg lool waaw wër na Sëriñ Tuubaa ndax man. ci lu baax lañ ma yaree. ci famille bu baax laa juddoo lu baax laa xam. moo tax tamit ci laay dox te ma àndal moom laa lay yéene ba ci sama xarit yi may àndal seen doom sax dama leen di wax loolu mhm. jëkkëram boo waxee bu toogee bu ma demee këram bañ toog di waxtaan ci li day réeba bëgg de man ko su ma ko bawoon mu sànq ji wala mu xëy sa indil ma doom ñu ne ma ko liggéey ah. mhm. barke sëñ Bàmba dama koo dóor ba doom mhm. kontaan naa nag. yow yaay ndax yéen émission bu ngeen génne rek ñu ne bii la. ndeysaan yaa yaa yaay ju mat yaay dama koy déglu. chaque samedi. ndeysaan ndeysaan. kontaan ci tata di ngeen ak soxna mami moom. ndeysaan ngi lay kontaan ci yow ngeen ngeen dund 111 ans. ndeysaan ndeysaan yàlla bàyyi leen ba seen i sët di def lii ngeen toog di ko seetaan. ndeysaan ndeysaan foo ñu woowee moomu yàlla may ko li gën ci moom. foo ñu woowee ci barke Mouhamed. amiin foo ñu woowee suñu borom nee na dina la xañ fii may la fële. te yow yàlla yàlla may sa jëm. amiin amiin fooy wootee nii fooy wootee maa ngi wootee Touba. Touba ma ne. waaw bul quitté. waaw d'accord dama laa bëgg jox juróomi junni. aywa kontaan naa. loolu loolu lu ko fay. dara dara ko. bàyyi seen sama doom mooy xëy ci yeewu leen di door. aywa dëgg la moo tax ñuy ñëw di mottali bul ñu may la juróomi junni. waaw d'accord ngeen xool numéro yi bu baax a baax dugg ci. 88 628 22 22 88 628 22 22 Ndoye Bane 88 628. 65 65 jàppal numéro boobu baax mhm. ndax waa Pire tamit. waa ah, Pire 88 628 65 65 wala 88. am ci juróomi junni 04 05. mami. waaw xam nga euh, damay dellu si waat ci kër gi. Mhm. ba tey parce que nee naa la. loo ci gis rek ci kër gi kër gi su yàqoo mhm. gis nga ku ku kër gi su gis la yaay yu mel nii ngay wër waa ñii lay wër mhm. ñii lay wër parce que mhm. da koo topp gis nga doom waxoon naa dama la fa waxoon démb ne ay jékki-jékki ñëw toog sama biir day metteeg xale da ngay xam léppam da ngay xam léppam gis nga xale su wàccee sax sa doom ne ko jàkk bëti bët ak bët gis nga bët du fen xale boo xamante ne yendoo ak moom su ñëwee rek ne ko jàkk di ko xool doom gis nga doom da nga koy xool. Mhm. da nga koy xool di ko di ko xool ci bët di ko di ko scanner. gis nga way jur du du du nii rek. Mhm. damaa jur non loolu dafa responsabilité la. Mhm. kii dafa def responsabilité am seetlu na doomam dem faj ko fa mu ko war a fejee ba gis nga lii. nee naa la kon kër gi laa la wax xam nga kon gis nga kër gi laa la wax. parce que dama la wax sànq ne professeur bi ci kër la jóge ma ne la tamit xale bi ñuy jàngal ci kër la jóge kon su fekkente ne ne que ñoom ñaar daje nañ ca école ndaje mu bon ba ku ci nekk lal ci xelam lu bon kër ga éducation de base bi tigi tigi tigi rate na mhm. sànq bi ngay wax affaire bu photo yeeg yooyu la léegi mu am lenn loo xamante ne ne que su fekkente ne ne que professeur ba xam na ko ay waajuram def nañ ko ci mu ñoom dafay tax mu jomba gis nga jomb jomb jomb jomb mami jomb amatul li nga ragal ki nga ragal bu demee nga def li nga jomb nag day dëkk ak yow jomb xam nga léeg nga mhm. dem toog jël jël avion daw 6 heures de temps wala 14 heures de temps nekk ci dëkk boo xam ne papa nekk fa yaay nekk fa dara nekk fa. Hmm. nga jomba def. Hmm. Hmm. loolu ca kër ga la. kon jomb-jomb yooyu su fekkente yow da nga toog ni nekk mën nañ dellu si waat il faut que ñu dellu si waat ci yaraat suñu doom ci jomba def. jomba def. ruusa def. am ma am kersa. xale bi nga xamante ne am na kersa. dina dem ci école ba daje ak professeur boo xam ne amul kersa mais moom am kersa. ba nga xamante ne xanaa xamoo léeg nit nar caay-caay. léeg-léeg nit na caay-caay nga yow cultiver sa kersa. Mhm. ak sa worma ba mu mujj laa rus. Mhm. yëgu looloon. Mhm. am na ay xale yoo xam ne ñu ngi ca école ba xam nga lu leen muccal. worma ak kersa. kon kër gi ñooy waar dëggantaan sax doo ragal ba mu doo lijjanti ba mu ragal la. jëf ndax bu la ragalee yàgg yàgg dina la jëm paakam hmm. ginnaaw. saay saay dangay lijjanti ba mu rus la. jërëjëf li mu lay rusee nag yaa koy jël teg ko sa kanam. Hmm. mais xam nga taa dégeen lan mooy wax ji. nañu wax baatu olof bi mu leer. Hmm. luppum nday lu mu lax-lax ca la doom di toog gis nga tànk bu toogul. Mm-hmm. dina ràbbatilum ndox du raxas. Mm-hmm. dafa am ñett ñoo xamante ne. cay xet wa danoo war di wute rendez mm-hmm. gis nga ndaanaan lu mag. jànq bu toll ci jaar. ak mbët. buñ dul rate rendez-vous rek musiba dal leen. fu ñu toll ci wéy sama ndey la ñuy dëkk. nit ki dafa am fu muy toll foo xamante ne ndayam daf ko war a jël def ko comme enveloppe bu ëmb bu leetar sañ léppam nag. nekk ci léppam. mais xaaral. yow bu fekkente ne yow sa doom nga yaakaar yow mu génne waale la ci mhm. sa doom nga bëgg mu siiwal la sa doom nga bëgg mu wane la sa doom nga bëgg mu teg la ci kaw ba nga ne fàng mhm. te yow wóor na la ne sa doom mënu ko ci at mënu mhm. ko ci dayoo mënu ko ci leneen hmm. mais dama ne nag bu ñëwee dee xàll mbabal hmm. doom jaa tax nañu yaraat gone yi ndax kenn ku ci nekk booy ñaan hmm. doone yàlla na ma fi sama xarit bi mujj ginnaaw di ma ñaanal mm. ku nekk sa doom nga fi bëgg a bàyyi mm-hmm. mais ki nga fi bëgg a bàyyi ëllëg nag pour mu yor sa kuutaay dama ne kooku war ngaa teel a def ci moom loo xamante ne mm-hmm. boo lëggee du mujjee puso ba mu réer doo mm-hmm. yàgg naa la wax ne la askan day doon sotuwaar boo ko bëggee baaxal boo ñàkkee fayda ba am ci alliance nag yaa ko teg sa bopp da ci am caq bu rëy xam nga occasion la balaa sa élément bi dooy baan waaw man ne la ñaari d'accord ma mm. benn bi nga xam ne d'accord ma ko mooy parent bi nga xam ne am nga moyen nga ne sama moyen foog mu feeñ sama doom mhm. ba tax école ba su ñëwee jël cheveux naturel bu yegg ba ci ndiggam cinq cent mille mu teg ko parce que tout simplement jàpp nga ne am ngaa ko jël jiin wala boog ay yére yoo xamante ne valeur ba ëpp na lool mhm. jël ay dàll comme li mami doon wax yoo xamante ne ne xale léegi dootuñ solati cere mhm. yaa ngi dégg parce que jàng yóbbuwu leen école dañuy bëgg marque yaa ngi dégg parent ba nga xamante ne am nga ko mën nga ko def ko di wane di écraser professeur ba écraser ay nawleem loolu erreur bu rëy la boo xam ne mhm. ñu parent yi koy def mu am beneen catégorie boo ko parent bi nga xamante ne biir na la ne sa doom li muy def yëpp jëndoo ko su ñëwee rombalaak cheveux naturel mhm. xam nga ni jëndoo cheveux naturel bi rombalaak saag ba nga xam ne jëndoo saag ba mhm. rombalaak yëre yi nga xam ne jëndoo yëre yi rombalaak yëpp te am complexe wala ragalu wala boog doye deg ne lii bu mu fi dugg ak foo ko jëlee loolu dina tax xale ba ca école ba tamit professeur ba nga xamante ne ma nga yore ay notes sexuellement transmissibles lim koy xëlamtoo mooy affaire matériel mhm. lim koy xëlamtoo indil ma jox ma li fekk ma fa fale mhm. lim koy xëlamtoo mooy ci li mu soxla mhm. lim koy xëlamtoo ci xiif gi mu xiif yooyu yëpp dina tax not sexuellement transmissible professeur saay saay ba mu fa fekk étudier ndax kooku day étudier nee naa la moo ko ëpp xel mm-hmm. étudier na ba xam ne xale bii dafa xiif mm-hmm. ba xam ne xale bii mm-hmm. hamburger mooy tax mu dem am na ay xale yoo xam ne dañu xiif ba professeur bi su ko nee midi maa la yoreel hamburger wala 18 heures fu ko hamburger ba fekk dina ko def kon yooyu yëpp ay xeetu nooteel la yoo xamante ne mi ngi ci parents yi war ci bàyyi xel nañ dem seetaan élément bi ñu dellu si jox la nga ko yow da ngay génn ak sa professeur euh, fi ñu jógee sori na pour fekk la fii parce que sa histoire dafa doy waar. Euh, yow naka nga def bay génn ak sa professeur yi. waaw li ma lay wax nii man maa ko dund. Mhm. ndax fi nga jógee nu mu soree ñëw ba fekk si ma fii nii moo tax ma lay expliquer. Mhm. man damay génne sama quatre professeurs. quatre quatre professeurs. Mhm. mais man. li tax may génne samay professeur man école privée laa nekk sama benn copain moo may fayal. sa benn far. waaw sama benn sa far bu professeur la. non du professeur. Mhm. mais moo may fayal. Mhm. léegi moo may fayal te sama yaay lijjantiwu kan moo may fayal. Mhm. fayal. trois ans si ren. trois ans mu may fayal. ban classe ngay def. ren laa doon def seconde. kon moo la fayal ba nga am BFEM. waaw kooku de xam naa doo ko trahir moom. <laughs> mën naa am doo ko trahir. waaw mën naa am. mën naa am doo ko trahir. waaw léegi. Mhm. ndax mun naa mun naa am duma ko travailler mais instant yi daal maa ngi génne professeur quatre professeurs. Mhm. pour ma mën a satisfaire sama yenn besoin parce que su ma jànkee lu ma jox lépp. quatre professeurs yëpp ci benn école bi leen ne. déedéet ñett yi ñoo bokk école benn bi bokkuñu école. ñett ñi ñoo lay jàngal. waaw ñett ñi ñoo lay jàngal. Mhm. ñoom moom yaakaar naa xamante wuñu si xamante wuñu seen. waaye naka nga def bañ aborder la yow yaa dem ni leen dama leen a nopp. déedéet déedéet ou bien ñoo ñëw. comme élève bu compétent ñëwee si classe des fois nekkul ñoom dañuy ñëw di la laaj boo leen expliqué ñu xam ne yow da ngaa war nga mën a nekk après ñu profité si affaire yooyu di la jëf xarit. Hmm. di noonu noonu ba ngay génn a faj sama yenn soxla hmm. may hmm. lan lay may dañ lay may xaalis. Euh. waaw dañ may may xaalis. duñ ma not moom ndax maa ngi jàng moom normal. duñ la may not. mais yow yow yow par exemple yow professeur yi soo bëggee gisante ñoom fan ngay gisante ñoom seen kër yi wala. kenn ki moom sa saa ma woowee këram moom ma dem këram mais ñeneen ñi moom ma dem ah, ki ki ma xam këram. ki nga xam bi la nekk. déedéet euh, ci beneen école la nekk. mais ñett ñi lay jàngal mosoo cee couché ak kenn. déedéet bëgguñu loolu xanaa. ah ñoom ñooy nekk tout temps foofu laay jàngee chaque jour su ma nekkee après xaw ma nuñ koy xaw ma ñoom nañuy réagir moo tax. xanaa ñoom kon soo bëggee gisanteeg ñoom naka ngay gisanteeg ñoom ci école bi rek. ci école bi kese. ci naka ak tamit dañ bi ci lool rek lool la ma mën a dem seen kër di leen seeti. Mhm. dama leen a ndax mhm. am na ñoo xam dañuy seex li ñuy seex ci biir école est que loolu am na ah moom am na professeur yi yoo xam ne moom gis na école moom bëri professeur yi doxaan élèves yi moom. Mhm. am na sax ñu si takk élèves yi. Mhm. mais moom ñeneen ñi moom xawma lu ñu professeur yi. Mhm. ko de. xamoo ko sa yaay yow sa yaay du sa yaay dama trois ans yi nga xam ne mi toog di la ko fay safara bi di la ko fayal te xam na ko est xam na lool xam na ko kay. xam na ni safara bi moo moo moo lay fay. safara bi day ñëw ci biir kër gi. waaw day ñëw ci biir kër gi. doxaan si. waaw sa du ko wax dara. moom euh, sa papa est-ce que lijjanti na la kan moo lay fayal. lijjanti ko de. moom mun mën na la fayal wala. mun na ko kay day liggéey. moo na la ni mën na la fayal wóor mën na ko. ba bi di la fayal. waaw da ngay moom ko lu tax. kooku moom ah, muy liggéey moom. moom xaw nag lu liggéey. safar laajte wu ma ko lu muy liggéey en tout cas. xanaa xanaa yàggule. ah kay su ma juumee am nañ ay quatre yooyu noonu. Ah. génn nañ un an mosul maa gis muy dem di ñëw rek. xaw ma nag lu muy xamoo këram. xam naa këram kay. waaw mais naka ngay génne nit quatre ans te xamoo lu muy liggéey. ah laaju ma ko ah, mm-hmm. gis muy dem ak ñëw rek di lay jox xaalis. waaw te xamoo dara lu muy liggéey. xaw ma dara waaye yow tam yow tam yow tam yow tam say affaire tamit jar naa seetaat naka ngay génne nit quatre ans mu lay fayal école. ah sa yaay xam ni sa kii xam ni moo lay fayal sa papa xam ni moo lay fayal te xamoo lu muy liggéey. ah man moom lu muy liggéey intéressé ma lu mu may fayal rek presque moo may intéressé. yow yaa ko wax mu lay fayal. non proposé ma ko moom ma ko proposé nag. Mhm. ndax benn année damaa def année balance après mu ni su mhm. te xam naa ne sax sama jàng mën na see jaaree yàqu ndax tey bu xëyoon bàyyi ma du ma am ku ma fayal. su xëyoon boo bàyyi la du du ma am ku ma fayal. Mhm. yow wóor la ndax agresseur la wala commerçant la wala xamoo xamoo lu mu doon daal xamoo dara. daal li ci la doon. wa mais mais tey jii euh, euh, yàmbaa ji ñuy wax ci école yi ak sàngara sax yooyu est que loolu am na. waaw parce que benn jour suñu directeur moo ñëw nee na daa am ko ko wax élèves yi si école bi dañuy tux ay yàmbaa di naan sàngara. Mhm. man moom mosuma kaa gis. Mhm. te tamit duma wedd ne amul ndax loolu fii loo ne amul rek am na. Mhm. prof daal ñëw na nee am na élèves yi tux yàmbaa si école bi nee moom xam na ñan la dina leen convoqué waaye ñun moom laajuñu sax ñeenti far nga wala juróom. juróom ñeenti ñeenti ñeenti ak ak ki fayal. te kenn nga ci ku kenn nga ciy mus a defal rapport nga wax kenn benn ci professeur yooyu kenn heure boo ko namee ci moom ngay dem da ci des nag ñoom ah ji moom tamit moom moom daal moom yaa yaaram la di rafayal waaw ah, kooku moom jàmbaar la de moom <laughs> ok jaajëf Diouf mbokku téléspectateurs yi am mbégte nag ànd ak yéen ci témoignage bi man sama jëm bopp man fi ma toog. Hmm. xam naa ne man crise naa feebar la <laughs> xam naa ne sama tension ba ma bu hmm. na. Hmm. la yónnil kafe jaaw waaw waaw yow yaa ko jëli woon. non glace kay <laughs> eh, woon ci ay. waaw fa ma fa ma fa ma fa ma ko jëlee sax. Euh, waaw waaw xam naa waaw. <laughs> doy waar la boo xam ni. man noonu rek noonu rek noonu xam nga. Euh, soo gisee sax question yi ma ko laaj euh, moom xam na fa ma jógoon mais toujours xaw na ma xaw na nëbb li waa ji di liggéey mhm. mais dama gis ni dafa yomb parent yi toujours naka la benn góor di fayale sa doom muy jàng mhm. ñetti at mhm. nee na moom li ko metti mooy yaayam ak papaam mosuñu taxaw laaj ko ku lay fayal xam nañ ki yaayam ak papaam xam nañ ki koy fayal mais mosuñu cee wax ak moom man ko est-ce que sa papa am na lu mu la fayee. mu ne ma sam papa am na lu ma fayele mhm, parce que su ko munul woon man dama naan carrément munu ko dama naan munu ko. Mhm. parce que doom bu jigéen day day yërëm papaam. Mhm. jàppale papaam mais sam papa am na lu ma fayele sama yaay mi ngi def ay taaba taaba yu yu ndaw ak yow mais même su amul sam papa yaay lu amul lu ma fayele war na ma laaj. yow kii kan moo lay fayal. wala mu xam ban classe la ne lay def wala mu xam man ci lan lay dund. ñoo koy sax ci. mu moom day xëy suba du ndékki. fi muy jànge ak seen kër dafa sore maanaam dëkk ak dëkk la maanaam comme ngam nga ni de nga ni nga ni derkele ni kolobaan wala nga ni kolobaan ni ni noonu la demee nee na yenn saa yi day xëy du am lu mu demee école yenn saa yi day xëy du am ndékki nee ci professeur am yi ñoo koy doxaan ci biir école bi ak kenn koo beneen professeur boo xam ni ci beneen école école école lay nekk mhm. xam nga nee na ci ñooñu lay jëlee paas mhm. mais beneen far wi nga xam ne moom élève du professeur du dara kookoo koy fayal weer wu dee xaw ma vingt vingt cinq mille xam nga loolu te sa xam nga forme prostitution te loolu voilà hmm. c'est ça pour ñu bañ ko ak ñu nangu ko prostitution te gis nga moom mi volé la ci lii moom moo wax de hmm. mii ñi seen far yi di fayal hmm. kenn xamul nu mu toll waaw kenn xamul nu mu toll am na ñu ci koo xam ne seen parents yi xam nañ ko am na ñoo xam ne seen parents yi xamuñu ko te ku ci parent boo xam ne xamoo ni sama doom ji mi ngi jàngi ci école privée mi ngi dem di ñëw xam nga ni lii muy jàng kenn mayu ko ko dafa war di fay am na ko koy fayal ci jéemoo gëstu lu mu ko koy fayale ak ci yan anam la ko koy fayale am na ko ni ma mais xale bi ji bi ma koy gunge ba may gunge ba ñuy waxtaan nee na ma école yi sax am na ci ay professeurs yoo xam ne dañuy takk éléve yi takk takk takk suuf bi ñu doon waxtaanee barki dem takk boo xam ne bàyyi du yaay xale bu jigéen bi yaayam du yëg papaam du yëg foofu koy takk amu fa waaw waaw <laughs> yaayam du yëg papaam du yëg Euh, professeurs yoo xam dañ leen dañ leen affecté fenn mm. yow doo doo doo doo doo fa fanaan mm. mais soo wàccee école yaa nga fa di ko toggal di ko yakkal di ko fóotal di ko paase concubinage waaw ngeen di béggee di def yëpp mm-hmm. euh, te moo soo amee not di la ñu lay noteel note yu baax sam njàng ngay avancé di dem rek di avancé di dem rek soo gis mm-hmm. nga ba egg ba def bac bi moom kenn mun la koo may mm-hmm. boo xanaa nga am nga am fuite nga dem université nag def cartouche ñu daal lay dàq loolu bari na ci ci ci ci école yi. Mhm. ndaw si man li ma gën a metti mooy papa ji. Mhm. jigéen sax dina am ay complot ak mhm. ay doomam mhm. mais nga am papa mhm. muy liggéey mën a nga fa mën a fayal say doom pour ñu jàng nga gis ne sama doom ji école privée la nekk mu ngi dem ak a ñëw ñi ngi koy fayal te xamoo kay fayal kan la ou bien xam nga ki koy fayal mii da nga cee waxul man genre papa boobu man man man vraiment jaaxal malheureusement euh, Ndoye Bane loolu bëri na xam nga sànq bi ñuy junj affaire démission parents yi mooy lii rek sànq bi nga xamante ne maa ngi lay wax parce que xale waxoon naa la ne su déséquilibré ci kër gi lu ne mën na koo def mhm. Mhm. déséquilibre boobu mooy irresponsabilité parent yi waxoon naa la ne euh, communication benn amatul ci kër yi ki nga xamante ne ne que baayam talu ko ndeyam talu ko mhm. kooku nee naa la mën na dérive bu ne mën na ko dal parce que fañ ko war a téyee téyewuñu ko fa ña war a wax ak moom waxuñoo moom ña war a jëflanteeg moom jëflante wuñoo ak moom gis nga xale bii ni mm. exemple la ci peut-être Euh, su doon day wax pourcentage xëy na ci 60 pour cent malheureusement élèves yi parce que parents yi ci jëm boppam bëgg nañu lu yomb parce que góor gi nga xamante ne yaa ngi xool sa ay sa euh, sa euh, sa ay soxna ne ko débrouiller dépense chaque mmh. jour nga ne ko débrouiller mmh. kooku kooku kooku waxatuñu doom mmh. sa soxna yaa ngi koy débrouiller loo waxatuma doom kon ki nga xamante ne ne que débrouiller loo ndeyam débrouiller loo noo xale ba xale ba nag ci débrouiller ca lekk ba la ca fayum école bala mhm. ci nangam ak nangam ak nangam mhm. Mhm. te dafa nekk yenn yoo xam ne malheureusement lii mooy xew ci kër yi xale boobu xiif bi nga xamante ne moom la àndal paas bi nga xamante ne war na ko paas ak nekkinam ak colinam yëpp mu koy jéggaane ci biti kooku yaa ko rey mhm. nam ko amee baax na mhm. te professeur saay-saay yi nga xamante ne ñooñu laay waxal ñi nekk ci kër yi genre poids yi lañu soxla mhm. dañ leen xam ndax xale bi su ñëwee dañuy xam ne dafa xiif xale bi su ñëwee dañuy dafa dox xale bi su ñëwee da dafay beddeeku tout simplement dañuy xam ne kii amul moyen comme kii ñu ñëw mel ni sauveur sauveur boobu nag la ñuy sauver ba sauver sa lépp maam xaw ma nag dégg boole ci am dafa am benn benn affaire bu grave bu <laughs> nekk léegi ci école yi wax nga ko sànq école yi léegi dootoo sol cere doo sol naba mm-hmm. euh, da nga war a yor chaque jour saak mm-hmm. xam nga saagu école bi mu jeexee ci réew mi mm-hmm. la problème commencé dem xale yi léegi saak yi grande dame yi di doxantoojee moom la ñuy jàngee saag yu cher waaw te saag yi war nañ cee am juróom fukki saak ak juróom benn muy couleur bu nekk ak goût bu mu leen neexee bu nekk danga koy boole ak dàll bu cher yow da ngay dem ba soo eggul ñoom foofu ñu egg beddi nañ la amoo pour toog ak ñoom mhm. amoo pour wax ak ñoom mhm. fi ñuy jënd jee lekk amoo pour dem fa mhm. boo seetloo léegi école yu ci bari jaaykatu lekk yu mag yi léegi dañuy ñëw di ubbi ci seen wet xam nga lu tax xam nañ ne xale yi léegi lekkatuñu printemps mais dañuy bëgg ku ci génn ku nekk cakkar-cakkar sa saak ñëw dagg sa table lekk lu cher fay xanaa xamoon ne ñi ngi wax prof yeeg ñeneen mais ba ci biir lekk googu am na ñeneen ñu leen ciy bu muy ñiy jaay ci barabu lekkukaay yooyu noonu mais damay dellu siwaat ci beddi bi ma lay wax dañ lay beddi beddi beddi beddi ba nga xam ne yow daf lay jaral da nga naan lu ma am jël lu ma am jël te mhm. wax naa la fii démb ne la mhm. xale yi day jubuñu mhm. waaye nag ndawalu bormol lañ lu ñu duuf duuf ratax kon mooy responsabilité parentale bi dafa war a dellu siwaat nday yi xam ne nag gis nga euh, liggéey daal li ma la wax barki dem boo xamante ne ñaara ko bokk te bu yàqoo ñu jiñ ko kenn ki kenn ki war naa góor góorgóorlu mais nag yanukati xëddeen tamit dañuy yëgoo kër bàyye ko moom xam nga foofu la taxaw foofu dama lay may gis nga xale yi nga xam ne les enfants issus du boobu beneen paquet la ci biir li nga xam ne tamit moo xew doy waar mhm. parce que xale bi su fekkente ne papa jeeg yaay ji dañu divorcé te papa jeeg yaay ji jubóowuñu lu ne mën na ko mhm. parce que tout simplement léeg-léeg nga seet ko doo wax ak papa ji nga defee ne mën nga kër papa ji papa seet ko du wax ak yaay ji defee ne mën nga kër yaay ji xale bi day joué ci loolu da lay téléphoné ne la maa ngi dem sama kër papa doo wax ak papa ji maa ngi sama kër yaay doo wax ak yaay ji xale bi nag nekk ci diggante jeu boobu muy joué làng kat dëggantaan. Mhm. ci appartement meublé yooyu la ñuy yendu. Mhm. da ca naan da ca tux yàmba da ca def yëpp nekk ak professeur bi moo tax gis nga parents yi c' est pas parce que da ngeen mhm. divorcé que doo leen bokk xale bi. effectivement que doo leen toog di waxtaan ndax intérêt xale bi. loolu tamit dama ci bëgg a attention aux parents yi nga xam ne ñoo divorcé. man tam fi ma bëgg a attention aux parents yi mooy élèves yu góor yi. taa dégg gi nga façon solo bi ñuy so ñuy solo léegi. xale bu la ci gën a niiru xale yu ñu góor ñi laa wax de. Mm-hmm. dañuy solu comme ay jigéen. mais fay naa la ci couleur yi. waaw couleur ay ay ay. ay verte orange ay ay ay. ay couleur yu doy waar la ñuy sol la ñuy la ñuy sol. xëcc sol ay peau yu bon di niiru gis nga lool maa fi waxoon benn émission man ni sol côté peau yëpp ay góor jigéen la ñu coow lii c'est parce pour pour que pour vexer élèves yi ba nga xam ne. Mm-hmm. dañuy sol solu góor. góor day solu solu góor. jëlee ci ligne bi ñu taxaw foofu. salaamaaleykum. Euh, soxna si noo def. allo. alo oui. allo. allo oui. waaw yéen may dégg. ñu ngi lay dégg bu baax a baax. Euh, kii laa bëggoon waxal dégg ngeen. Adja dégg waaw soxna si. waa euh, ajaat man la sa grande sœur madame Kane HLM Grand Yoff. ah ma oh, madame Kane kontaan naa. <laughs> gis ngi déggal sama magu bopp maa ngi lay ziar. dëgg la dëggal. di sargal léegi li ma bëggoon mooy. Mhm. sa numéro laa soxla dafa am dama voyagé am lu ma la indil. Mhm. te xamatuma dañ sàcc sama numéro yëpp léegi nag sa bopp réer ma ma ne xaaral ma woo dégg. ndeysaan ndeysaan loolu dara fayu ko. Mhm. bul quitté madame xam naa récupéré na grande sœur waa xam naa Mia jël na ko ci suuf. Mhm. ndeysaan li yéene la yéene mhm. mënu koo weesu. bu rëy rëy rek wallaay wallaay maa ngi ko gëj a gis waaye ñii kenn amul seen fay. xam nga foofu nga taxaw mami. daj na paquet bu doy bu rëy loolu nga wax noonu. Hmm. dafa am réseau yoo xamante ne. Hmm. dafa am ci école yi. Hmm. gis nga parents yi. dama defam am suma benn doom boo xam ne dama mës a waxtaan ak moom kooku à l'époque taxoon na ma def alcoolisme ci xale yi mu ne ma ñun groupe la ñu yore suñu école mais euh, suñu wàccee ñun ñëppay jëli pot. ma ne ko ah bon da ngeen jëli pot mu ne léeg-léeg même noonu dañuy jëli pot. di ma xamal ni ñoom dañuy naan. ci ay élèves lañu ci benn lycée de dakaar xale may waxtaan ak moom mu ma ci jox ay détails yu doy waar. gis nga moo tax parents yi. Mhm. ñu ngi jàngax seen doom ci lu doy lu doyadi goo xamante ne ëllëg ak si bi lépp nag seen kaw lay xam. Mhm. réseau yooyu nga wax noonu. Mhm. ay réseau homosexualité. waaw aussi bien masculine que féminine mu ngi ci biir. te généralement. malheureusement dafay am ay professeurs yoo xamante ne dañuy bokk ci réseau yooyu. ndax professeur bi nga xam ne pervers la am na penchant homosexuel. nga xamante ne nekk jox nga ko bétail parce que xale yi jàpp nañu ne ka nga xamante ne ne que mel ni lu boo dugal ci bergerie mhm. professeur saay-saay ba di nga ñëw jox ko ay xale yoo xamante ne dañu ñeme kooku dina dem ba nga xamante ne am réseau homosexualité bu doy waar boo xam ne dafa am ay jàngalekat yoo xam ne ñu ci biir système jàngalekat bu jigéen mhm. ak réseau lesbienne mhm. jàngalekat bu góor ak réseau beneen ñu ay recruteur lañ ay recruteur allo allo allo oui ça dama bëggoon participer. ñu ngi lay waaw ñu ngi lay déglu fooy wootee. man maa ngi wootee Dakar. waaw ñu ngi lay déglu. Mm-hmm. léegi man damay ñëw wax rek. ci mm-hmm. négligence parents yi. Mm-hmm. parents yi du dañoo négligé. parce que man sama benn ami de classe. am na cours boo xam ne par mardi lañ koy def. kooku mosul dugg cours boobu. chaque mardi Thiès la koy passé. Thiès. chaque mardi Thiès la koy passé. léegi parents yi daw da ngay jàngi école. duñ la laaj sa bulletin de note. yow peu de duñ la ko laaj. sa emploi du temps duñ la ko laaj. yow daal jàng bi mooy. boo xëyee gàddu sax. ba nga ni wàcc naa. am na parents yoo xam seen doom yi sax duñ leen jox ndéeg. te loolu dëkk bi moom métti métti koo xam ni nit ñi talatuñ seen scolarité doom. mais ba léegi doom da nga koy yar. da nga koy sàmm. parce que waajur bu ne. bu yomb a dina laaj noo sàmmee woon sa njaboot. Mhm. mais tamit damay ñëw wax foofu tamit suñu benn prof. Mhm. moo doon benn matière danaa ma gestu ma gestu mun nga gis nga bu xees be. Mhm. man mun ma dox ba may lu njëkk. Ah, mun gis nga bu xees bi dox ko ma may la njëkkee. mun ma gis nga booy bu xees bi ma ko waa mun ma gëstu ma gëstu dox ko ma de classe. waaw loolu la bëggoon nga nekk maquereau bi. daf xees ba bëgg bëggoon nga nekk seen diggante maquereau. waaw. su waxee ma gëstu ma mun ma gis nga bu xees bi ma ko waa mun ma dox ko ma may la njëkk. ma def ci dara doy sax moom kay mun ma ma mun ma dox ko léegi. dafa ne léegi élève dafa dem ba defatul cours boobu fu ma tasee ak moom mun ma ni moom lu tax ne ma toog cours bi mun ma prof bi nga xam ne bu ma duggee def cours moo may lii wal neexuma léegi mënatuma def cours la ko éliminer cours boobu xoolal àq boobu. Mhm. Ida. Mhm. dox ko ma may la waaw dox ko ma may la njëkkee ndeysaan yow yow la leen bëgg a may njëkkee noonu allo. mais gis gis gis nga lii. ah waay ah, ah xoolal xoolal vulgarité. Mhm. xoolal. parole yi. xoolal xoolal xoolal rapport yi nga xam ne moom la ñuy établir sa diggante ak sa élève. Mhm. Mhm. xam nga. Mhm. xoolal xoolal familiarité bi. vulgarité parole yi ak ak lépp gis nga. et puis may njëkkee loo ciy may. njëkkee mais mais dama la bëgg a wax ga bu yaa a seq sa élève ko gisee fit di ngay def. loolu moom dañu ko wax a wax toogee ba naan ko ay ma may la njëkkee gis nga réseau boobu. dafa am benn bés benn xale boo xamante ne daf ma mosoon wax ne gis nga euh, tàddigin ma ne ko ah mu ne ma yow xanaa xamuloo ni rapport yi ngeen di wax nii mhm. professeur yu jigéen ñi am na ci ñenn ñoo xamante ne ne dañ ma jéggal lesbienne mhm. ah, mu ne ma dama woon benn professeur boo xam ne daf ma dox sa dënd bee may rey waaw xale bu jigéen mhm. nee na professeur bu jigéen bi moo ko doon wax sa dënn baa may rey mhm. waaye ngay nga ngay yaay wala nga war a nekk yaay mhm. ñëw jaakaarloo ak koo xamante ne doom la wala mu nar nekk sa doom amuloo benn yóbbal boo koy jox bu dul sa dënn baa may rey ci école ba waa mami li doo ci wax ak fu ñuy muccee ndoyu baan mi dafa gaaw a fàtte xëy na mais amoon na fi maire boo xamante ne ñetti élèves yi jàmbur ñetti doomi jàmbur la fi jële woon yóbbu leen ba Maroc waaw ndax seeni parents ndax ak ñàkk Mhm. seen parents yi nangu xale yi dañoo gañee direction école baa leen di yóbbu pour feteel leen jële fi xale yóbbu leen ba Maroc te seen i parents xamuñu fuñ dem mhm. lan maire ba dafa yorub réseau donc il faut kon mu tànnoon xale yi réseau yooyu la def waaw def casting yóbbu xale yi fii ba Maroc mais parent bu mën a toog fii kay sa doom jàng ba ñëw ne la man dama am nangam sama école mhm. dañ maa war a yóbbu fii ba Maroc mhm. doom ji war a mën a waaj war a mën a jël saagam dem Maroc ca école def fa ay fan ñëwaat indi lay valise ak i bagage ak leen lu nekk ñëw tuur mhm. xale yi dañ dem ba dëkk biir kër maire ba maire ba mu demee ba doyal da leen a génne demaat wutaat fa mu wutajee woon la demaat wut fa yeneen xale fa non non xale yi xale yi xamuñu këram ah ok pour man nag dañ la dem intéressé a xamuñu këram bi mu leen fay dugal xale yi xamuñu nun def ba dugg euh, guddi la leen fa dugal mm-hmm. euh, takk takk seen bët yi dugal leen ci xamuñ pare xam nga suñ takkee sa bët ba ba Dakar comme ci film yi voilà dugale ci benn kër da nga doo xam foo nekk doo gis te gisoo téléphone gisoo dara bi mu leen di génne tamit la même chose dafa génne rek wàcce leen wàcc yóbbu leen bokk la bàyyi leen fa loolu yëpp sàggante parent la beneen paquet mm-hmm. ci yi waaye Euh, euh, machiavélisme professeurs yi ak perversion professeurs yi mhm. Mhm. ak collaborer bi ngay xam ne dañ koy collaborer xale yi fan la yegg mhm. gis nga léeg-léeg nga gis xale boo xam ne daf lay wax ay euh, dañ maa kidnappé woon ak oto bu ñuul ba mu gaaree <laughs> ma dugg ci dégg nga euh. mu teg ma lenn ma xëm parce oh, que mm-hmm. xale yi ci jëm boppam dañuy jouer ay scénario dañoo am xel xel ci boppam lañ léegi nag xel yi leen wër kay mm-hmm. léegi nag loolu nga xamante ne film yooyu nga xam ne lañ koy def mm-hmm. léegi dañ koy def en complicité avec professeur bi nga gis professeur boo xamante ne day ànd ak xale bi weekend Gambie ci misaal ànd Gambie dem weekend xale bi moom fu mu ne nii nga gis yaay ja fu ne muy dem dem sëriñoo sëriñ nga fa mhm. ñu lay naan fu lëndam la ne dégg nga ma de mhm. ak ah, kay mu nga fu lëndam mhm. dégg nga fu lëndam la ne nangam ak nangam patati patata jékki-jékki xale bi oo la mel ni kuy jooy dañ maa kidnappé woon gis nga kuñ ci kidnappé bu ne soo ko yóbboo ci gene ko xam ne lañ ko kidnappé ëpp na ñoom ñooy ñoom ñooy lijjanti yooyu ñoo nekk xel sous prétexte que am na ci ñenn ñoo xam ne dañuy naan li leen tëj dafa bëri liñ leen di contrôler dafa bëri kon motif pour ñoom pour que ñu joxe seen xale yi dama la bëgg wax dootuñu xale hmm. xale yi ci boppam dootuñu xale te suñ demee ba nga xamante ne wax naa la hmm. ko docteur bi professeur bi hmm. bi naan xale boo xam ne douze ans nga ñëw hôpital indi feebaru sëy da ngay sëy te ñoom ñëpp soo leen gisee soo ijjee seen saak yi tulli la ci ne ah. yaa ngi dégg baax la wala boog ay ay ay kawas mhm. wala boog ay matériel u sëykat man kay nee naa la boo xam ne soo tijjee saagam fekk fa silip waaw <laughs> ah, léegi <laughs> fekk fa bagage yëpp waaw nee naa leen maire yi bopp nañuy ubbi seen saagu ah. doom yi mhm. so sa doom demee toog une chaque semaine de ko benn mais xale bu bu ñu fekk silip saagam xawma lu mu saag bi ubbi ko yulli saag bi ci kaw kii ci kanamam mu muy muy gis lépp mhm. di nga gis lu la jommal te daal léegi fii ma bëgg ñu insister fa mbiru góor jigéen yi ci école yi. gis nga ñu dem pib si. waaw nañ dem pib foofu parce que dëkk bi ni mu mel doy na waar taal de. nga ubbee foofu parce que réseau la réseau bu garaaw la garaaw a garaaw dem publicité léegi dellu si xam naa ni moom a nekk mu ngi may indil glace. Mhm. sama tension bu góor am gaawal waay. waaw sama ko nga élève nga euh, est-ce que mos nga génn ak professeur. waaw. Hmm? waaw. waaw lan moo taxoon ngeen génn. man xam nga terminal laa doon def léegi dama amoon ay prof à domicile. terminal nga doon def. waaw dama amoon ay prof à domicile laa amoon. Mm-hmm. léegi premier prof bi. man à chaque fois sama yaay dafa ma doon wax. Mm-hmm. yow da ngay charmer prof bi daal. sa yaay moo la doon wax. waaw nee na prof yi bu ñu ñëwee yow da leen di xam nga n'empêche que ni dëgg la woon mais bëgguma ko woon di accepter. lan moo taxoon nga leen doon charmer. man xaw ma man loolu mooy sama façon de dox. Uh-huh. man noonu laa mel de nature. Uh-huh. léegi nag benn jour xam nga ba prof ma doon jàngal dafa ma neexoon et ci biir kër gi la la doon waaw léegi ma ne ko que man dama bëggoon génn ak moom daal. nga wax ko ko carrément. waaw ma wax ko ko. Uh-huh. léegi mu ne ma moom il avait peur. parce que déjà sama yaay daf ko considéré moom bëggul affaire yooyu noonu te sama yaay bu ko yëgee mën na am leneen lu si xew. léegi nag ma baab ko baab ko daal ba mu nangu. Mm-hmm. léegi defuñu une semaine sax après mu ne nañ bàyyante parce que loolu wóoru. Mm-hmm. léegi nag ma amaat beneen prof. prof boobu sequle dara. non non sequñu ci biir kër gi la la doon fekk di la jàngal. waaw ci biir kër gi mais yow nga daan def ak moom foo nañ teg moom. non def bu ma def ak moom dara mosuñu seq dara waaw après. léegi nag ma amaat beneen prof. waaw boo xamante ni kooku moom man maa ko moom tamit man maa ko ko wax dama ko ne woon. ci biir kër gi lay ñëw que daal waaw prof à domicile la. yow ku ñëw daal nga neex ko. waaw loolu rek laa ko doon wax ku ñëw neex la. man xaw ma lan la sama nature peut-être. xam nga leneen juddu si léegi nag ma waxoo ko léegi prof moom dafa d'accord moom moom amul dara lu mu tiit mais nee na bëggul woon sama yaay xam ko et tout. nag maag prof boobu tey nii ba tey ñu ngi génn. Mhm. ma ne nopp naa ko nopp yooyu de. Mhm. noppuma ko nopp yooyu daal peut-être que dafa am lenn lu ma neex ci moom rek mais bëgguma ko bëgg yooyu. te am na am na keneen ku peut-être son style wala. ni la façon boog mooy transmettre affaire bi mais daal man bugguma ko noonu xaw ma lan la xaw ma man bu tax sax may resté ak moom ba tey mais bugguma ko daal. day ñëw ci biir kër gi di la jàngal. waaw te dañuy affaire yu bëri dañ koy seq su ma amee sama problème bu ma amee problème xaalis sax dama ko koy wax mu yëkkati jox ma. Mm-hmm. ñaata at la la doxaan moom. moom mm-hmm. ans bi huit mois lañ def ma moom. huit mois. Mm-hmm. te terminal nga doon def. waaw am nga bac. non non doo am moom. lu tax du ma am. Ah, parce que yow yow. yow kat ku ñëw nga nopp ko. kuy ñëw di la jàngal ci biir kër gi nga nopp non du loolu sax. waaw du loolu. yow gis nga résultat bag yi dañoo catastrophique te man terminal S2 def man góor du ma teree jàng. Mhm. du man du góor moom may teree jàng. Mhm. peut-être nag yàlla moo ko tuddoon rek mais du góor moom may teree jàng. yow yow man mettre xamante ne. yow moom yow lu tax lu tax góor seen kër war la jàngal nga nopp ko est-ce que jànq nga yow. man mhm. ah loolu moom mënu ma cee wax. ah lu tax ma ciy wax. non parce que am na lu ñu waxtaan ci suuf mën a yow sànq. dëgg la. waaw waaw loolu ci mag yow la yam. waaw kan la ci prof prof bi la wala. lan ku la ko teg prof bi wala moom moo teg de. waaw hmm. a defar rapport. kenn ku mujj ku mujj gi. ku mujj gi. Hmm. fa lañ ko defaan daan defee ci biir kër gi. déedéet seen kër. xam nga daan seeti. waaw ci biir kër gi nag du leen def dara. non ci biir kër gi duñ def dara. nit ñi dañ leen di bàyyi xel. non non duñu bàyyi xel kenn du xalaat loolu affaire yooyu kenn du ko xalaat. ci mm-hmm. man ak moom. après da lay iri feneen. Hmm? da lay iri feneen. ah pas daf may iri boo waxee iri day garaaw. non iri la parce que su la iri mooy mu invité la feneen. Hmm, waaw ba tey rek lan mooy iri. waaw ba tey rek. Ah. mën na nekk de. kon kon kon mën nañu wax ni kon yéen éleve yi. yéenay provoqué. waaw ñun yi lay nekk ñun faute bi tamit mu ngi ci ñun de parce que ñun ñooy sol ay affaires yoo xamante parce que góor tamit góor rek la mën a doon. Mhm. am na góor yoo xam ne mën nañu contrôler seen bopp am na ñoo xam ne mën nañ contrôler seen bopp man daal faute bi du ko jël teg ko góor ñi kese. du mhm. professeur yi kese parfois tamit élèves yi ñooy def. kon yow da gën a prof booy pare am sa beneen far feneen. waaw koo xamante man bëgg mën na xaw ma sax. Mhm. peut-être c'est nature. école nag. école non non. prof nekk école. école moom am na prof yu ma doxaan mais école moom sama milieu école moom du ma fa génn benn prof. Mhm. ok ok ok mais am na ki amul euh, jéem nañ daal mais. da nga waaw am na prof yow daal à domicile ñoo la saf. ah ñoom ñoo ëpp classe. ñii ñëw à domicile. ñoom ñoo mais ñii ñëw à domicile ñoo nekk ci école ñoo nekk ci école bi mais man ñooñ ñooñ man man ñooñ laa gis. Mhm. ok ok. d' ak lan leneen lan nga dund ci mbir moomu sa am na say copines yu ko dund. ah waaw am na am na yu bëri samay copines yu bëri yu ko dund. Ah. yoo xamante ni waaw. xam nga man école privée laa nekk dañuy nekk ci école léegi mu ñuy fay prof yi bu ñu leen di indil seen paiement parfois si enveloppe lañ koy def indil leen ko si biir classe bi man dama amoon benn copine boo xamante ni sama prof moom tamit la doon génne prof bu ñu yoroon si biir classe bi. Ah. à chaque fois d doon génnee si salaire am vingt mois jox ko ne ko jëndal. say affaire mhm. parfois tamit mu yóbbu ko këram toog waxtaan wala mu yóbbu ko resto parfois tamit notes yi da ngay xam ne sax lii moom liggéey ko mais mooy ëppale note si classe bi mhm. ok d' accord yow ñaata at nga am man maa ngi am 18 ans. 18 ans ngay ngay ngay nobanteeg say far say say professeur ba ñuy bañ nga ba ngay def ak ñoom rapport la tamit doy na waar de. doy na waar moom. bi nga amee ñaata ñaata at. ñaata at ci nga ci nga perte loolu moom du ci wax. c'est à l'âge de non wax ma rek à partir de euh, à l'âge de 15 ans wala 16 ans. waaw ah, côté yooyu rek c'est pas jaagul de. 15 ans wala 16 ans. côté yooyu la rek. côté côté ans nga am filmé nii. waaw. jërëjëf mbokku <laughs> am mbégte dellu seeg yéen ci seen ñaareelu xaaju émission bii di wareef ci télévision Futur Média inspecteur doy Bane mm. say élément yéeme na mm-hmm. yéeme na lool lool lool lool lool te li danga wax démb lu am solo ak bërki démb yëpp ne bu benn parent mm-hmm. làq sa doom naan sama doom du def lii mm-hmm. ndax xale yi kanam bi nga xam ne moom lañ lay wan suñ nekkee ca kër ga ak suñu génnee ca kër ga nekk benn su fekkente ne nit mënoon na filmer doomam su nekkee ci kër gi ak su génnee ci kër gi. Mhm. ak su nekkee ci milieu scolaire. Mhm. du gëm du benn du benn du benn kon kii daal yéem na ma lool mhm. lool kuñ ci filmer woon sa doom heureusement am jot na ma faj. waaw ah. <laughs> kuñ fi kuñ fi filmer woon sa doom filmer la filmer la sa doom. bi mu génnee kër gi. Euh, deux jours ñu la koy filmer ñëw tegal la ko da nga naan kii juróo ko. te souvent da ngay nekk ci koñ bi yaakaar ni sa doom moo gën ci koñ bi. jàpp doomu jàmbur yi naan xoola doomu diw ja la muy solo. mën na nekk ci koñ doom sax di soloonu garaaw te gën a yiw sa doom ji nekk fii ah ci gën leen a yiw fuuf donc na nit ñi di bàyyi xel ci seen doom yi te doom du doom ji jigéen rek doom yi jigéen yi ni ñuy defee ay ay giraawaar yi yaa woon ci paquet waaw noonu la doom yi góor yi di defee ay giraawaar yi dëgg la maire paa yi dama bëgg ñu toog waxante dëgg waxante dëgg ci bët ak bët kon yow yan réseau nga gis ci école nga école yi doon sànq soo école boo dem dangay gis xale yu jigéen yi ah, da ngay gis xale da ngay gis ñetti xale yu jigéen ànd ak benn góor su élèves yi wàccee mhm. nga gis ñu ànd ak benn góor ñett wala ñeent xale yu jigéen ci benn góor soo xoolee góor kooku comportement am na muy solo dafay niroog sax jigéen ñamu mu àndal mhm. papa ma ngi koy gis ni muy solo mhm. sol pain waxoon naa fi solkatu pain yépp ay góor jigéen lañu man dooy baat maa wax loolu góor da ngay sol solu góor soo fekkee bëggoo nekk góor nga dem taxaw ni papa man bëgg naa nekk góor jigéen ñi di sol mm. tubéy yoo soo ko solee soo sëggee sa sa ginnaaw gi di feeñ dañ a ñàpp mm. góor gi daal waaw góor gi lépp ba ci suuf ba ci suuf mm. nga ñëw sol ay o sol o ay ay body yoo xam ne presque ay owu jigéen la yére jigéen la mm-hmm. nga sol ko ah, baat bi xàppati ko xàppati ko xam ne sol ci ay couleur yoo xam ne maara day taali góor da ngay sol yëf yi yu góor lu nekk yaa couleur di wax waxinu góor mm-hmm. di doxan doxinu suñ jógee nga sol ay sol ay lenat yu kenn xamul mm-hmm. takk ay ay montre yu kenn xamul bopp ba nga tent ko waaw tent bopp bi di sol ay dàll yu vert ak mm-hmm. ay ay dàll yu xonq ak di sol ay dàll yu vert filio yu kenn xamul kon su la déggee daal tendance homosexualité bi dafa nekk mi ngi ci biir école bi jël ci lii te genre solo yooyu kooku ci solo seen yaay ne laa war a génne jëlal jëlal jëlal salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si noo def maa ngi fi ngi lay ziar bu baax a baax tata Babou. waaw. naa def. ah loolu neex na ba tata. Babou Babou Babou. ah may saw naa la jonaay ba waaw bismillah oh, man dama dama bëggoon intervenir ci émission bi. ñëpp ak lay déglu. alors li ma bëggoon wax mooy euh, affaire bi crise d'autorité la mm-hmm. Mm-hmm. c'est que nit doo jur sa doom mm-hmm. bëgg école bi yaral la ko da nga war a inculquer doom déjà comportement ak aspect social jàngal ko si kër gi ba mu xam moom mooy kan comme ça su demee ci école ba pof bi yokk éducation bi bu njëkk mhm. lu tax yéen ngeen doon wax ne soo leen gisee prof bi ngeen détaillé. Mhm. parce que prof bi nit la woon. Mhm. dafa amoon écart d'âge entre l'élève et son enseignant. enseignant bi da daa am quinze ans d'écart. élève bi du mus a taseeg moom boîte de nuit. du mus a taseeg moom fu muy lekkee. c'est-à-dire que day nekk benn star si moom boo xam ne. ci école bi rek la koy gisee. mais du ko gis si mbedd bi muy def lenn li ak yooyu. dëgg la. mais léegi. les on ont presque le même âge que les élèves. Mm-hmm. Mm-hmm. enseignant bi su amee vingt cinq ans. Mm-hmm. élève bi am dix huit ans wala vingt ans parfois trois ans d'écart mooy nekk seen diggante. su boobaa nag li ñuy wax trop de familiarité engendre le mépris. parce que xale bi day dem Facebook fekk fa enseignant. dëgg la. dem Skype fekk fa enseignant. dëgg la. dem Instagram fekk fa enseignant. wallaay wallaay WhatsApp. si enseigne enseignant bi di lekkee foofu la élève bi di lekkee mhm. donc ça veut dire que il faut toi au quotidien mhm. te parents yi ils ne jouent plus leur rôle mhm. ñu ngi daw derrière l'argent derrière le matériel derrière le prestige en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire doom bi leen yàlla dénk. Mhm. il faut pas tout le dos des enseignants. dëgg la mhm. dëgg y a un autre aspect également. Mhm. boo xam ne jëloo leen ko en compte. exact mooy actuellement l'éducation a évolué. complètement bu njëkk enseignant quinze étudiants nga daan am quinze élèves. Mmh. léegi tu en as plus tu as quarante cinq dans ta salle. état bi tamit suivre parce que ay vacataires lay. lay embaucher. Mhm. ay contractuels ñoo xam ne amuñu formation amuñu déontologie. Mhm. ñooñu nga jël leen yóbbu leen ci région bi. Mhm. ñuy jàngal xale yi ak benn formation. donc eux aussi ils sont tentés par cette jeunesse là. dëgg la te également moi je suis contre ces parents. qui laissent leurs enfants ñuy génn ak yenn colin ak yenn kii di ko jàngee école. parce que tentation également. Euh, euh, peut-être que li. Ah, yii fi mu nekkoon baax elle est waaw waaw waaw woon dem waaw waaw waaw parce que xam nga daanaka daanaka sociologue day dafa def sa rôle sociologue mhm. parce que ki nga xam ne moom mooy diagnostic moo société bi di ko wax mhm. ci anam boo xamante ne dafa def round up laal na fépp mhm. fépp fépp donc moom ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax da nga nekkoon ci li nga xamante ne ne que moo di waaw col gi col gi col ci góor ñi ci góor ñi man daal góor suñ ne relation professeur élève mhm. nañu xalaat ne nekk góor ñi dañ ci am wàll jigéen ñi am ci wàll mhm. ah, relation professeur élève góor a góor soo amee professeur góor jigéen mhm. am élève góor jigéen mën nañoo euh, seeq dara bu bu jigéen beeg bu jigéen mën nañoo seex dara bu góor bi bu góor mën nañoo seex dara donc surveillant yi ci boppam dañu war a xool góor gu ci sol solo buy niroog jigéen ñu dàq la ci biti wala ñu photo la def ko ni ñuy def bàngoo bàngoo soo jooyee dañ lay photo Dakar bango dañ lay photo solo la yi ay ndoket lañ lay solal photo ko la taf ko foofu contingent bu ñëw gis ni yow mii bi nga ñëwee bàngo da nga doon jooy mais noonu la ñu war a nañ ci yow bu baax. li ngeen def rafet na. def nañu. saa yu ma xëyee dama leen di def. merci merci li amul woon rek mu am na ci école yi. yow yow ban classe ngay def. man nag bàyyi naa lu la tax a daw. lu tax nga bàyyi. ah jàng bi léegi lu tax nga ne ba ngay jàng est-ce que lii amoon na. woon nag. ah ah, ah. ah lu tax nga ne jàng bi amul njëriñ yow tamit. xam nga rek. léegi ñu bëgg ñu bëgg xale yu jigéen ñi di toog ci école yi di jàng bu baax doon doon ay kilifa. waaw man de waaw. soo seetloo taa dégg ngeen da ngay dégg ñu naan njàng mi jigéen ñi léegi ñoo dàq a jàng mais loolu dafa laaj enquête jigéen ñi dàq ñoo jàng jigéen go classe boo dem léegi jigéen ñaay raw nañ enquête ci loolu lan moo tax jigéen ñi di raw lan moo tax jigéen ñi di yow mi enquêteur ba nga maa am na ci élément xam naa lundi euh, kii kii dina la ko jox li tax jigéen ñi di raw ci classe yi mm-hmm. ah du ñëpp am na jigéen ñoo xam ne dañ koo mérité mhm. am na ñoo xam ne dañ koo mérité mhm. mais am na ñoo xam ne mérité wuñu ko mhm. classe boo dem da ngay dem région boo dem euh, CM2 ba euh, CI ba CM2 jigéen ñaaraw sixième ba terminal jigéen ñaaraw donc ne ne mais yi la hmm. note yi la mais soo amee xale bu jigéen boo xam ne am na am na ñetti prof yu muy génn a nga dugg d'accord ma ah déedéet dama d'accord te reportage bi ma ci indi jigéen na ko wax de. waaw waaw mais dama d'accord jigéen moo lii ma lay wax nii. jigéen moon moo ni ma. ñoom seen biir école. ba ñu doon jigéen ñi dañu gën a am fulla gën a am jom. donte donte ndax sexuellement transmissible am na. waaye su fekkee da nga jël xam ma ah. nee na ma seen école nee na ma seen école ñi tudd Modou Ndiaye hmm. dañ doon wax naan te ñoo def yokk ci sunu tur yi moo Modou Ndiaye ndax ñuy am ay not hmm. ndaxte jigéen ñi ñoo leen raw fépp loolu loolu reportage yooyu nga def mi ngi ci mi ngi ci reportage bi dina metti loolu nee na ñoom koo xam ne mën na ma dimbalee liif waaw ancien policier waaw bu am liif waaw ñoom chef Alioune Ndiaye ak ñooñu liif liif bi fa la bàyyi ma laajal la ko tonton Cheikh naa Keita waaw loolu loolu laa bëgg laajta ah. ah nañ jël allo maaleykum salaam. soxna su baax si maa ngi lay ziar. waaw ñoo ngi delloo ziar. acca bismillah yaa ngi ci biir waxtaan bi yow loo dégg ci école yeeg loo ci gis. wallahi li ngeen wax yépp dëgg la. Mhm. loolu moom affaire bu fa am la ndax euh, ñoom ak euh, élèves yeeg yi ñoom ñoo bokk benn milieu lu ne xaj na ci. peut am na ci yoo xamante ne sax du ngeen ko mën a xam. Mhm. allo wallaahi waaw. waaw yow rek la ñuy déglu. waaw waaw affaire bi moom. loolu la rek. ndax milieu boo xamante ne ñoom yi neen la. Mhm. aussi bien que professeur aussi bien que élèves yi ku ci nekk mën na séduire sa morom. dëgg la séduire. est-ce <coughs> que dégg na ci exemple gis na ko ci. est-ce que yoroon ci mos a dund benn. moom dafa mel ne dafa dem taa dégg mhm. fi ma bëggoon laal léegi bala ma koy fàtte mooy. Mhm. waxum tas gi nga wax yaay du wax ak papa papa du wax ak kii ñuy jaabante. baax na gone du nekk gone ak ñaari réew. beneen bi ci topp mooy les enfants issus du divorce. Ah, boobu jël paquet la de. Mm, mm, mm. paquet la gone gone du nekk ndawul ndawul ñaari réew. diggante boobu yàq gi fa mën a nekk ak li mën a yàq ci ay xale. daf dul jeex. na yaay xam kañ la doom war a dem kër papa na papa xam kañ la doom war a nekk kër yaayam. te loolu sax. du pour papa ja mm-hmm. ndax baay baayu ñëpp la mm-hmm. nday mooy ndayu kenn kon nday ji moom moo mm-hmm. war a lijjanti lépp xam nga man lan laa gis ne fi mu ne ci wax ji foofu la toll mooy gis nga ku xamul suur naa mm. danga naan nikk ca loxo ba wiccax soo bañee mu lekk ba faatu mm-hmm. te man damay ragal ni mbir mi foofu la ñu jëmee mm-hmm. ndax sànq soxna si dugg li mu doon wax li tax mu intéressé ma trop mooy mm-hmm. li comme ni nga ko waxee dafa laal point yi xew ci réew mi yëpp mais tamit lan mooy coow li kan mooy jàngale man foofu lay dellu si waat muy fi ñu commencé woon wax na dëgg volontaires yeeg vacataires yi ñu ngi leen di ziar leen nuyu ndax ñoom itam ci lañ bokk mhm. mais classe bu nekk nañ fa teg dafa war a jàngale mhm. mu nekk fa di jàngal xale yi mhm. ña tolloog foofu bu ko defee ñoom ñu mën a am tuuti xam-xam bu ñu yóbbaale mami dama kontaan sax ci yow gis nga suñu wax relation professeur élève doy ban du ci affaire nañ ma jéggal affaire laafum ganaar kese jëla ki ci ligne bi ma salaamaaleykum beneen paquet si noo def ñu ngi sant bu baax waaw ñu ngi sant ñoo ngi a baax waaw Ndeye Marème TFM. Ndeye Marème. Ndeye Marème TFM. waaw bëgguñu rek Ndeye Marème TFM la sax. ndeysaan waaw. <laughs> bëgguñu rek bon anniversaire Ndeye Marème. <laughs> ok merci dama bëgg TFM trop. daf ñu bëgg. Mhm. dama waaw vraiment dama leen bëgg dama leen di ñaanal rek. à chaque fois ndeysaan ndeysaan problème bi mooy damay woote ba sonn du ma jot. Ah, xam naa tey la ko yàlla dogal fooy woote. waaw maa ngi wootee Passy ah waaye naka waa Passy waay. <laughs> ñoo si ñoo si ñoo yow dugal ci thème bi après bul mhm. waa d'accord waaw. Mhm, mhm. waa ñoo ngi rafetlu thème bu baax. waa affaire yi moom à chaque fois nii lay. ñun ñi dañoo am ay rab ñun ñi ay élèves lañu woon sax. mais lii nii am na benn cas xam ne son benn xarit lii daloon na ko. da obligé dafa obligé moom it euh, da ko yàqal lu bëri ci jàngam. naka la ko dalee. waaw moom nu mu ko dalee dara ñëw di may expliquer mm. ndax maître euh, bi dafa jëloon numéro téléphone mm-hmm. mu jëlee numéro téléphone am nee na mu koy woo téléphone mm-hmm. ci genre boobu mu koy def genre chantage mm-hmm. na da ko wax naan dama hmm, la nopp ak yooyu noonu ngeen baal ma ci kàddu bi nee na su ko waxee loolu mu ne ko man man xaw ma loolu ndax man jàng moom ma tax a jóg su ko defee mu ne ko yow su newee ne lii nii ma wax nii da nga doxal léegi damay def de sorte que nga xam ne dama lay jox ay bonnes notes. moom dafa obligé. ne moom mënu ko wax papa mënu ko wax yaay ji ko jur. nit ku ñëw di ma koy confier. Euh, ba à la fin damaa mujjee dem. wax ak euh, son professeur. nit ki soo koy jàngal di koy jox xam-xam. da ngaa war a def ci moom lu rafet ba xam ne ëllëg si ngeen tasee di ngeen am di ngeen wut ngeen am gàcce. Mhm. te kii nii da nga ko war a comme sa dëgg la. ndax ëllëg macha allah moo ci avenir waajuram moo ci am avenir boppam. Mm-hmm. kon kii nii am na loo xam ne tey su demee ba dem ci école bi. Mm-hmm. yow moom sa bopp mun na la yàqal lu bëri. dëgg la kon am na yenn yoo xam ne dafa rafetul. dëgg la xam nga ñun dañuy wax parents yi. Mm-hmm. mais parents yi lu mun seen doom yi ñoo ngi koy def. ndax euh, dañuy chaque chaque jour ñoo ngi yedd. kon moom exemple sans bopp laa ko jëlee. dëgg la temps yi may jàng sama yaay ay toujours day yedd. chaque jour day wax. dëgg la mais ba yàlla def lu gën réussir ma ci jàng bi. Mhm. mais macha allah maa ngi sant yàlla. waaye mucc nga. waaw waaw macha allah mucc nga mucc nga ci professeur Saay Saay. waaw mucc naa ci ndax ñaari cas yooyu mosuma ko am. dëgg la mosuma ko am sant yàlla. dëgg la. sant yàlla yéen it maa ngi leen di ñaanal maa ngi rafetlu seen émission trop. waaye bu ñu ñu may la juróomi junni. aywa sant naa waaye. lii lii lu ko fay. ah yu ma dara ah, waajal waajal tabaski rek xam nga ne TFM dañoo am maana. waaw loolu moom yaa sant TFM te tamit xam nga sama doom Baye Cheikh su tàmbalee rek ma ñu mottali. bul quitté jël nañ ko ci suuf gis nga euh, Ndoye Bane. Hmm. dama la wax sànq ne am na ci école yi relation professeur élève yoo xamante ne. Hmm. du ci laafum ganaar gi kese. Hmm. bëri na fi suñu ay doom yoo xam ne seen ay jàngalekat ñoo leen jàngal naan. bëri na fi suñu ay doom yoo xam ne seen jàngalekat ñoo leen jàngal tux yàmba mhm. bëri na fi ñoo xamante ne ñoo seen jàngalekat ñoo leen bàyyi ñoo leen jàngal tux cigarette ndax gis nga euh, aussi loolu bëgg naa bés boo toogee ak ministre bi ñu interpellé ko ci bu baax a baax mhm. ndax léeg-léeg da gis benn jàngalekat boo xam ne su dee ñëw suba si sa école be du mun taxaw hmm? xasewu xunnu xunnu xunnu xunnu mhm, yaa xam ban la ciy naan yaa ngi dégg baax li ma la wax xaw ma ban ban la ciy naan <laughs> kooku su ñëwee xasaw suba teel nga gis xetu alcool bi du jug. Mhm. mu dugg ci ci école bi. kooku si dugg see si école bi am na ñenn ñoo xamante ne pour ñu mën a jàngale sax diggante permanence yi wala heure yooyu il faut ñu am lenn loo xamante ne benn genre pat wala dell boo xam ne daf leen di jege. Mhm. nga gis si ñenn ñoo xam ne rapport ya ñuy am ak xale xale dañuy am benn xale boo xam ne kooku la ñuy yónni affaire bi. yaa xam salañ salañ wala nàmpal bu 500 bi. Mhm. yaa xam bu 200 bi yaa xam beneen ak beneen ak noo ko mën a tuddee. ak xeet fii nii fii ay salañ salañ mais soo demee dir Thiès. waaw soo nee jëndali ma Jakarta. waaw am na fa usine baa nga fa. waxoom nañ ci ba ñu tëj ko. Mhm. Mhm. dénga léegi nag su fekkente ne ne que xale yooyu. tàmm jël nga ci kenn koo xamante yaay tàmm di ko yónni. yoo xamante ne léeg-léeg dafay mel comme genre euh, euh, kii canette yeeg yooyu mm-hmm, mm-hmm. xale bi di dem ak di ñëw mm-hmm. xale bi di dem ak di ñëw di habitué ci naan bi léeg-léeg nga dem nga ne ko non naanal deux après nga fekk ma euh, saal nangam wala ginnaaw école bi ñu toog waxtaan nga gis xale bi ci jëm boppam day dem ba nga xam ne jàngalekat bi moo koy jàng naan parce que xam nga leen loo xamante ne ne que bi ñu yëkkati woon affaire alcoolisme xale yi loolu ci lañ ci rendre compte malheureusement beaucoup d'élèves yu bëri jàng nañu naan ba mën naan koo xamante ne ne da nga naan ca journée ba ba reesal sa mandité doog a ñibbi sa yaay ak wala sa papa du xam ne ne naan mm-hmm. kat donc noonu noonu def ci yàmbaa bi nga gis ci professeur boo ne day tox mm-hmm. balaa muy taxaw di wax ak xale day dafa am fu muy toll mm-hmm. nga gis ci kenn koo xamante ne day partagé yàmbaak bay xale yi mu am ci ñenn ñoo xam ne ay dealer lañ dañuy dem sax ba di jaay loo jaay loo xale yi wala ñu leen koy jaay moo tax moo tax affaire yi euh, mami ku wax lépp nekk wax non yéeme na yéeme na xam nga ki la war a nax bu demee ba di la mbéj boo yuuxoo sax da ngay gor ki nga xam ne danga waroon tey ngay jooy ñëw tëpp ci kawam moom fu mu la fekk rek mbéj la mm-hmm. gis nga ci réseau yooyu nga wax noonu mm-hmm. am na ci prof yoo xamante ne seen xaalis bi ñuy wax pour di ko mën a jotee góor ñi gone yu jigéen ñi la ñuy jël di leen jaayloo am na ci ñuy jaayloo gone yu jigéen ñi mm-hmm. dañuy indi si makaani buks gi def ko seeni kii bokk leen ko si makaani buks non saa a ko moom si makaani buks lan la moom girica Girika moo ci ban. mooy bi gone yi di bañ rek. saa nekk ko waaw brown yamba bi ñuy wax brown. Ah, ah, ah, yamba dafa am ay yeneen tur. dafa am brown waaw waaw mm-hmm. yeggalil yeggalil. laaj ko Baye Seex xam na ci dara. si si Baye sama Baye Seex. ah daf ma attaqué am na jëla sama yoon nekku <laughs> ñu xolli la kenn du ko taxaw suuf. ba mu xalangoo yàgg na. <laughs> demal demal demal xam nga. comme dafa am yeneen tur. ba tax na yooyu yëpp. Mm. xam nga kii raam di la bokk bis bu amee limousine du la bàyyi ci arrêt bi ngay rang rapide fukk ak juróom. Mm-hmm. gis nga ki la yor ne moo lay jàngal tàmmal la commencé di la jàngal yenn yu sew sawaan yi xale bi dafay dem ba tout le temps dafay bëgg di wéet ak kooku parce que lim koy jàngal musu ko woon xam moom jàpp na ni kii mhm. jàngal na ko leneen lu bees mu di la gëmloo booy boo ci nekkee da ngay gën a ami science da gën a am leneen moom mag la dox na addunaam ba pare parce que yow période bi nga tollu tey nekk gone nekk ndaw war a wut xam-xam moom jaaroon na ci ba jàll yow nag mu ngi la use ndax yaa ngi dem di ko doxale ay cours am di dem di ñëw muy dugal leneen ci sam xel ngay ànd ak moom ci loolu moom day xëy rek ñu affecté ko ndax moom état ko yor yow da ngay xëy ñu dàq la école bi wala ñu raje la yow dootu amati feneen foo jàngee kon xale ñoo war a tey beneen bi ci des mooy jàngalekat yi ñu war leen rajee ci xale yi jigéen yi jàngalekatu simakaal yi boobu nga wax mhm. non euh, saay-saay yi ñoom ko am nañ chance ba kenn du leen raje ñaar ah, lu tax dañ moo tax ma bëgg ma gis ministre mais ki war a wax su waxul jàngalekat bu ëmbal ëmbati mhm. yàqati biir yàqati biir nañu mhm. ma jéggal bu baax baax maa ngi jéggalu ci lañ nekk jarul yàq yàqati ëmbal ëmbalati mhm. def lu ne mhm. ah di naan ba di lang école ba yëpp xam ko censeur ba xam ko directeur ba xam ko proviseur su la neexee soo génnee ci cadre école bi nekkoo école bi naa la lu la neex am na ci sax waaye mm. mm. ah, loolu loolu wax am na ci professeur yoo xamante ne mën nañoo dem a dem ba nga xamante ne yàqum biir mi ñoo koy jiite sax ci gene geneen gone gu biir yee feneen ñëw yàqal leen ko <laughs> ñëw ci biir école bi fekk fa professeur bi waxtaan ak moom mu jóg yéeg wàcc dugg génn ba biir bi yàqu sax loolu am na ci ay professeur nga ah da nga leen di lijjanti ay lijjantente la paquet day dem paquet ñëw ci <laughs> mhm. moo tax ta taa dégg maa ngi la sànq am na lu ma la indil biig ci guddi dama toog di di di bind ci jàngalekat waaw moo tax ma ne jàngalekat bi dama bëgg jàngalekat yi déglu bu baax li may waaw demal taalifal jàngalekat général Mia waaw yow rek la ñuy déglu balaa mhm. balaa ñuy def plateau moo tax dama ne jàngalekat bi fayal bor bi mhm. fàttalikul ni daara ji jaaroon nga ci bul sàggane sa waar ci tool bi ngir askan wi melal ni tëgg bu jàpp weñam bëgg koo defar ba gis ci njariñam mhm. waaye bul def gone goo gis ci jaara ji bëgg koo ñam jàngalkat bi am nga sas wu diis na sa pas-pas jubli ci rafetal tool bi mhm. gàncax gi naat meññeef mi doon firndey liggéey bi boo boo bañee ëllëg doo am kerse ci kanamu gone yi mhm. mbaa sax askan wi mais këyit bi bu ko sànni ah. fekk thème bi di jeex chaque jour il faut nga lire lii parce man ça veut dire xamoon naa ne euh, inspecteur intercontinental nga. Mhm. mais tey laa doog a xam ne taalif yal na yàlla. non damay damay non non non yal na yàlla fa. amiin amiin amiin dara fayu ko amiin amiin. non non chaque thème Mia général Mia nee na chaque thème nga nga lii taalif nga indi fii nii waaw baax na dinañ ci jéem a góorgóorlu nga taalif waaw dinañ ci góorgóorlu man mi rab yow nga taalif man mi seen yaay nag dëgg dëgg dëgg dëgg kontaan naa ci yéen waaw lii daal waaw lan mayoon jàngalekat yi pour man ma rab yow ban la ah man xam nga xam di jur yaay def yi yee dama di jur dama di jur dama leen jur man damay arbitre toog rek eh. ah, di xool foo leen déraper rek ma jaar fa nañ eh, décembre la dina jot ak jàmm bañ wan gars yi bu ñuy déraper hors caméra yi dan nga ñuy def décembre la hmm. waaw baax na waaw dinañ gis def plateau fin mhm. balaa ñuy dem rek may nuyu Soda Touré Nuba mhm. ak Adja Amital sama mag jooju Nuba ci maquillage yu baax yi nga mhm. xamante ne ñu ngi ci ñu ñu ngi ciy dox dëgg la waaw ba fatabakàlla macha allah mami di nuyu tamit ab sa yaayu Soda sama doom jooju euh, coiffeuse la di def yu baax baax ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Aïcha waaw man de xanaa damay dellu di wax gone yi ne leen sept étage ah. bi sept étage bi tey ñaata étage un deux trois quatre baax na kawe na kat foofu rek nga yam man li ma naqari mooy sama pantere bi nga doon wàññiwaale. Mm. waaw am na moo nekk ci digg bi léegi fii xale yi di basketee moo nekk ci ginnaaw kuur bi waaw mm. uh-huh, ak pantre xanaa daal dellu di wax gone yi ne leen man la joo gis ju nekk muu tay ndayam te na leen wóor ne mën nga war comme ci tax a kottum saaw boo ci jógee loo am jëndati kook teg te jaaykatu karité yi dañoo jël mm. kii te sedd baa ngi ñëw mm. toog leen te xam ne daal poojum nday lu mu lax-lax-lax la doom di toog mm-hmm. respecté waat leen seen kilifa yi waaye yéen kilifa du ngeen ñu mën a jur waaye ñu ne bu nu boogalee sunu njaboot ëllëg bi si àdduna bi dina tiis trop ci sunu côté kon nag nañu jóg daw bi ñuy amee tànk mhm. di tàgguwaat ba altine incha allah mhm. euh, ñu dellu si waat ci waxtaan wi di wax Daba Ndiaye mi nga xamante ne moo ma def nii di nuyu waat waa Sénégal gépp di wax oh. ajaratu Soda Sall nag yaay nday amee Mariama moo ma teree dem dalal xel gisoo moo ñëw def musóor gi waaye Aminta Ndiaye sama doomi ndayee ko musóor bari ah, ah, waaye tamit euh, soxna Kani Touré ma dëkk ca euh, Mariste mhm. fa AVFM nekkoon nee na daf daf ma yërëm man ak élèves yi ma toogal yërëm <laughs> nee na daf ma yërëm ah. nee na ma yërëm aletal maajoor nag mhm. lu tax mu yërëm la jaamu buur Soda Boy mhm. nee na comme sa enquête jàpp ko ay ta ñu dem d'accord ñu waaw kon ñi ngi sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan rek ñi xam ne rek sunu xam-xam bu ndaw la ñuy ñëw di joxe fii rek euh, di leen ci sant di leen gërëm baax baax ngeen ñaanal ñu ba ñuy mën di chaque semaine daal ñu am lu ñu indi ñuy sant di gërëm waa euh, kilifa diine kilifa aada yi ak képp koo xam ne da ngay jàngalekat te ñetti ci réew mi rek. Mm. Eh, ñuy jéggulu te xam ni defar rek. sonori message sax daf la niru ci affaire enquête yi ak yiwati. yiwati <laughs> ñuy sant rek di leen gërëm ba beneen yoon <laughs> incha allah waaw. dañuy dem euh, wax joyeux anniversaire nag euh, mhm. à El Hadj Mbaye Diop de la part de sa maire et de son père Aminata Mbaye et Souleymane Diop ah, ñu xam ne daal euh, mbéru mi nga xam ne moom lañ nekkal fii ah, mhm. di di nekk ci régie moo moo ñuy jox këyit bi happy birthday seen waa kër yëpp daal ñu ngi souhaité El Hadj Mbaye Diop joyeux anniversaire kontaan nañu bu baax a baax Fatou Bakala macha allah balaa ñuy dem fenn ah lii këyit bi ma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 baax euh, soxna Ndeye Naar Thiam <laughs> ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit ma euh, dem madame Diallo juuf Diouf ah, kontaan nañ bu baax a baax ci yow waaye tey damay dem ba Touba nag dugg fa nuyu soxna Oumy Mbacké mhm. bintu euh, sëñ Cheikh Mati Lay ñu ngi koy mhm. sargal ah nuyu soxna Bali Muntaxa nuyu soxna Astu Murtala ah suñu sëriñ yooyu ah mhm. sëriñ Mbacké Madina ma ca Poroxaan ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax waa Touba yëpp ñu ngi leen di ziar waaye nuyu nag sama soppe boobu Mati Sow ma nekk ca Thiès ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax xam naan di leen jox rendez-vous ah.

jar na may demee Joséphine Boub dina jar vingt milliards. bu Adja si tamit jar na fay Adja Adja si madame la directrice. waaw jar na fa directrice place du souvenir. Adja si non na def may demee ba samedi ba pare après lu mu def baax ba kontaan nañ ci moom jërë ngeen jëf. di ko kon à lundi mhm. général Mia merci beaucoup pour la réalisation jërë ngeen jëf à lundi incha allah ci même thème incha allah.